lañ leen xamee nii ñun ñun ñu ci biir kaso bi yaa ngi gis fu ñu dee xam guddi googu nga yëg lan nga yëg lan gis ñu rey sa morom nit ñi nga gis lii moom a tax ma nekk activiste coalition bi ñaata nit a jël place may parti bi wax si la bokka Amad Bass bi muy wax si la bokka Aziz bi moo wax si la bokka ici beneen constitution bu ees hmm. loi mayewu ko fenn neexuta wax maanaam amul benn clause bu provide the repeal of the 97 constitution programme xalaat la ko dox la ni war doxee su manqué tam si yow la soo nguur gi ñoo deful lu ñu war a def suñ defoon lu war a def mm. docteur yi yi jànga te génna waroon fee nekk nañ fi toog mm. kon euh, euh, jumtuwaay si lopitaan yi na doy mm. waaye may léeg-léeg naa lu si nekk tam sàcc bi mu bari si bu sawal Gambie yëpp dañu liggéey yaay jàmm tout Gambie fi tijje boo fi gis police ba fi gis armée boo fi gis ñu liggéey si ministre ñëpp tout dañu liggéey si yaay jàmm ñëpp kon ñi dañ ko cege woon kii moo woote woon moo euh, state of moom moo defoon mu jàll. state of emergency moo waroon a prolong li nga xam ne mooy state wu Yaya Jammeh ci régime boo xam ne dañ la euh, you are ousted. waaw ah xam nga state of emergency. mu ngi si mu ngi si mu ngi si constitution. Sidi Ndiaye ne ma maa ngi fi jël mu nekk campagne manager ne ga ga du fi bàyyi amul nii amul ne la Jammeh du fi bàyyi. boo benn itteel am tey lu xew si réew mi yëpp mu daanoo si élection député yi lu mu def.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 am mbégte bu baax euh, ngir euh, fas yéene àndaat ak yéen si seen euh, programme bile di weekend plus tey nag ñu am gan Pa Modou Mbowe nekkoon di liggéey Daily Observer waaye it ngeen xam ràññee woon ko ci APRC bu baax mooy bu njëkk bi ak bi nga xam ne moom la ñu wax léegi Noto Alliance hmm, liggéey boobu tey nag moom lañ nar a siix ak waxtaan yu bari dinañ waxtaanee TRRC recommendation bi white papers yi dinañ waxtaanee. Euh, yi ci aju yëpp daañu waxtaanee tamit euh, di current euh, situation of the country price hack yeeg yu ci mel nañ waxtaanee tamit di li nga xam ne rek mooy di summit bi xew fële ca Accra démb te président Barroso demoon ci ak tamit gisee bi président njiital EU muy président Sall defoon ak ki nga xam ne rek moo di Russian président di Vladimir Poutine loolu daañu ci waxtaan. daañu waxtaanee ponk yu bari waaye laata loolu balaa ma koy jox sax moom muy nuyoo dañuy sargal suñu scorpion si muy euh, Gambien si démb am nañ ndam ci kanamu ñii di waa South Sudan foofee ca Sénégal ci Thiès ci stadium bu Lat Dior euh, ginnaaw ba ñu mënee ñii di waa South Sudan benn bal ci euh, dara ngir rek dox ngir jëm ci li nga xam ne mooy qualification beneen yoon ngir bokk ci jongante yi Um, African Cup of Nations yi nga xam ne mi ngi war a am 2023 fële ca Côte d'Ivoire uh, Mister Mbow maa ngi lay nuyu di kontaan bu baax ci wuysu gi nga ñu wuysu di la bàyyi nga nuyoo Gambian Talents TV su ko defee ñu tàmbali waxtaan wi. Uh, jërëjëf <coughs> jërëjëf Mohamed Mohamed Mbaye Garmi hmm. maa ngi laa gërëm di la sant ak sa ñi ñi laa ñi toppa Gambian Talents TV. Hmm. di leen uh, toppa saa su ne maa leen di nuyu kenn ku ci nekk. ci turam ak santam di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay hmm. ah, di leen laaj seen jam yaram hmm. ah di kontaan lool ci hmm. ci invita invitation bi invité ni ngeen ma invité pour ma ñëw fii seen studio bi di very very first time ah, xam yàgg nañoo yàgg nañoo am interviews waaye du woon ci studio bi so tey moom alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla ne ñu ci studio bi Mohamed jërëjëf. jaajëf euh, ci li ñu njëkkee ñëw rek mooy euh, dañu njëkkee si APRC e Notto Alliance ndax xam nga ci jamono yi élection yi fi xewoon yëpp muy presidential election euh, national assembly election yi fi amoon yëpp amoon na yenn coow yu amoon ci APRC e bu Tombang Fabakary Tombang Jatta jiite woon yow bokkoon nga ci boobu ginnaaw bu fi ki fi nekkoon jiiti réew jugee woon mm, seen APRC e bi taxul yéen a ko doon doxal ànd ci woon ki nga xam ne mooy Fabakary Tombang Jatta waaye ñu dem ba ci biir euh, am leen lu feeñ muy lëkkaloo goo xam ne euh, bëggoon nañ ko def ak ki nga xam ne mooy président Barrow ñenn ci yéen ànduñ ci euh, jàmme yaa jàmme àndu ci yéen ñi àndoon ak yaa àndu moo waral APRC e Noto Alliance hmm, élection jot na ñu gis ne ñi président Barrow win na ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy APRC e bi ànd ak Fabakary Tombong Jatta bi nga xam ne boobu la si wax ne moom boobu la recognize léegi yéen lan mooy seen seen taxawaay APRC Noto Alliance ndax mi ngi dox ba léegi ci lan ngeen toll parce que gis nañ tamit président National Assembly election bi mu xewee fële ca Foni yéen five six ya fa nekk yëpp eh, yéen ñi ànd ak Noto Alliance bi ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko win so dama bëgg rek nga dikkal ma ci eh, nan la nekk di doxee ba léegi APRC Noto Alliance bi. well uh, jërëjëf Mohamed uh, mm. lolu moom ci laajte bi loolu moom lu jara fooguma ne sax jaratina leeral parce que it's an open ne <clears throat> soo gisee jamono no to alliance hmm. euh, dafa tombe woon rek ne ki nga xam ne mooy parti leader bi hmm. te di flag bearer bi hmm. di supreme party leader of the party ki nga xam ne moo moom parti am àndutoon ci coalition ak NPP te loolu foog naa ne balaa élection bi élection yebi sax euh, amoon na benn jamono boo xam ne amoon na benn leak audio boo xam ne foog naa ne yéen yéen journaliste sax war ngeen a mm-hmm. ne président Jammeh mu doon wax Rambo. Mm-hmm. ci audio bi. yaaw tam boo daan yessa mu ngi ko naan mu ngi ko wax ne ko bu APRC du dem alliance with no no party mm-hmm. parce que euh, firnde yim si joxe li fi euh, yim joxe as euh, ne loolu moom mooy li nga xam ne moo waral loolu ne to no alliance te afta loolu amutoon beneen audio bu génnaatoon pour wane ne président Jammeh génn na ci lu mu waxoon. Mm. léegi ànd na ci alliance. Mm. léegi ñun nag bi président Jammeh waxee ñun wan ñu ne moom àndut ci alliance ak MPP. Mm. Ah, jamono boobu sax waxut alliance ak kenn. because mu ngi mu ngi um, APRC parti la. Mm-hmm. parti bu fi nekk fu ñaar fukki at ak ñaar di rule. so obviously su génnee ci nguur. war naa mun a groupaat moomaat boppam parel boppam. pour am candidat pour tax jongante ci élection bi. Hmm. léegi ñun su fekkee ne ki nga xam ne moo moom moo fa nekkoon moom lañ dénkoon parti bi moom hmm. pare na pour dem hmm. yóbbu parti bi parce que moom. comme liñ xam afterwards ne président Barrow war na ne <laughs> depuis 2017 Fabakary Njie dem foofu moo Sidi Ndiaye eh, ah, di di di waxtaana moom yobul ko yóbbul ko APRC so obviously ñun bañ xamee loolu lañ fatamteku ne ah, ñun du yóbbu suñu parti di ko yóbbu ci parti bu ees boo xam ne ngënteeguñ ko sax NPP kenn ngënteeguñ ko amagul congrès sax anyway mm. te te ñun parti lañ bu fi nekkoon 22 years obviously war nañoo mën a taxawal ñu ngi taxawal seen boppa mm. GDC mu ngi taxawal boppam PDYS mu mm. yeneen parti yëpp a ngi taxawal seen lu tax a so ñun si lañ taxawoon pour make sure ne ñun suñ parti bi delluwaat nañ ci pouvoir delluwaat power pour pour jiitewaat réew so ah loolu nag moom moo waraloon. Ah, ah, xaaj bi waaw waaye Noto Alliance is du tur. Mm-hmm. Noto Alliance du tur. waaw APRC Babili Mansa ñun ñooy APRC parce que ñun. waaw ñu ngi ànd ak Babili mm-hmm. mm-hmm. moom moom pateem. ñun foofu lañ nekk ba léegi ñun demuñ fen ñun ànduñu ñun kiñ àndal. président Jammeh moo wax ne ñu ànd ak ñun direct som la ñoo parce que tey fooguma ne Mohamed. yéen di ngeen dara lu neex lu neexut problème loo leen di def dafa nekk within the confine of seen seen seen work ethics mm. li nga xam ne loolu ngeen war a def mm. loolu mun nga koo jóg nga def ko te pas Ousmane Diop ko mm. te du si am benn problème waaye amuloo leneen loo munti def pour yóbbu Gambian Talents léegi Gambian Talents TV pour yóbbu ko GRTS ah a pas Ousmane bokk si loolu fooguma ne ñeme ngeen ko yes waaw waaw am nga so obviously noonu la demee nag waaw <laughs> waaw waaw loolu mooy li fii li fi xew mooy tamit loolu bi ngeen ko defee euh, ki nga xam ne moo doon Fabakary Tambang Jatta moom moo nekkoon di flag biara non non moom loolu loolu la wax déedéet xam nga def na ñaata press conference yoo xam ne mi ngi wax loolu noonu as di euh, flag bearer of APRC fan la ko wax ah, def na press conference bi muy def euh, pétition ci euh, TRRC recommendation boobu ah, génnagul sa report yi pétition boob demoon nañ press ah. conference boobu taxaw na mu wax lu mel noonu ok soo ci loolu bi mu amee tamit ñu jugaat ne moom moo fi nekk loon jàmmee since jàmmee lef moom ngeen jiitaloon moom ngeen doon déglu presse conférence yi woote ci ndigalam ngeen doon tënku bi euh, ba ba mu wax li mu wax ngeen dat audio bi génnoon noonu tamit yéen ngeen jàpp ci foofu mooy fi président bi doon waxeeg fii euh, di former président doon waxeeg Rambo Diatta fi nga tamit bi mu fësalee ne parce que fësal nañ ne ñoom ànd nañoo baro lu jiitu am na one week before Yaya Jammeh di def réaction pour génnaaw am appointment bu defa def ak yéen foofee ca fooñi pour ci kanalaay pour waxtaan ak mbooloo mi foofu noonu ba si la doon wax ne moom àndu ci boobu lañ dégg public li xam nga yi ci des xam na audio lañ doon déglu am na ñu laam-laamee ndax moom la wala du moom waaye bii dafa def public eh, whatsapp call ñëpp di ko déglu kanilaay si jamonoy sax eh, li nga xam mooy booba ñu ngi waajal élection si eh, octobre yes octobre 15 very good so loolu bi mu amee yëpp bot dafa am benn governing body bu fi nekk boo xam ne moom moo tënk lépp sarta yi muy IEC boo xam ne moom lañ dooleel ci wàllu élection moom ci loolu amee jafe-jafe bi mu amee yëpp moom def ne APRC bi nekk under the leadership of Fabakary Tombong Jatta ñoom boobu lañ recognize beneen APRC boo xam ne amuñ right use symbole symbole APRC amuñ right sol t-shirt APRC even am na benn bés bi Jerending Sanyang bi ngeen doon def press conférence kër Jerending Sanyang amoon na problème bañ arrest euh, Jerending parce que dañu wax ne dafa def euh, li nga xam ne mooy press conférence without permit ak yow ba pare mu ngi use turu APRC te waru koo use déedéet waaye loolu moom loolu loolu APRC ñu moom ñun mm. kenn mënuñu koo kenn mënuñu koo teree use mboo bi ma sol nii mm. aso bi APRC la soo ko bàyyee xel mm. aso bi APRC la kenn taw ñi dafut sa pour stop ba ci mbedd bi pour man mu aso bi ma dem jëndal suma xaalis booba ñawal bi fay ñaw bi ah nga ne duma ko sol loolu loolu loolu xel xalaatu ko sax foog fooguma ne nit dafay na noonu sax parce que ku ko trahi kerek bés boobu noonu kenn nga ko rëccu ba bés bi ngaa dee loolu nit mënu ko stop AIC ah, eh, nag wax dëgg na yàlla ñoom am nañ am nañ droit pour wax li ñoo wax parce que AIC parti bu nekk da ngaa dem register si ñoom. Mm. su fekkee ne amuloo tur mm. da ngaa register register under independent. Mm. understand nga waaw loolu loolu AIC ñoom am nañ ci droit parce que ñoom Fa Bakary moom moo jiite woon parti bi. Fa Bakary moom lañ dénk parti bi. te te tey tey ah, Mohamed. yow doo ma um, Ousmane Ousmane Diouf dina la jiital yow teg la mm. fii moom mu nga Canada. Mm. or oh, wherever he is. Mm. mu teg la fii jiital la. ba pare kenn du la faale fi loolu benn staff ñemeñu ko. parce que Ousmane moo la fi teg. te lim la fi tegee mooy pour nga jiite. institution am. nga ko def nag mi nga xam ne loolu la waree. ñi ñi toppa sa gannaaw. soo ko defutee ni mu waree sax dina am benn ñaar ñuy fatamte ko waaye still naaw dinañ toppa sa gannaaw parce que Ousmane moo la jiital teg la fi. jiital Fabakary Dossou mi ne moom moom parti bi. Hmm. président Jammeh daf doon génna pour alaaw président Barrow pour mu ñëw pour su defee euh, euh, gars yi mun a euh, set up seen government ak yooyu si jàmm ak salaam. Hmm. def def si jàmm. Hmm. so bi o génna fi si lañ jox Fabakary parti bi pour mu look after pour mu take care of the party. take care taking care of the party nag loolu moom pour jiite ko rek la. Fabakary amul dara lu fi def moom tey yéen fi woon de yéen mm. ay journaliste ngeen. Mm. kenn mënu leen a fenal yaa ngi maa wax sax euh, euh, euh, pétition bu ñu ci TRRC bi. Mm. which boo xam ne dew ma woon waaye maa ngi ko seetaan ci télé bi. Fabakary amul dara lu fi def moom kenn. as a matter of fact lu ñu war lu ñu war a def as APRC foog naa ne moom moo di am the best treatment. Fabakary toog bi gën a nooy. ci nju mbooloo mi foofu laa Fabakary kenn du am sécurité waaye moom dina am sécurité mm. ñu ko xam ne ñoo ko wër from kiram mm. programme bu naree am mm. two days balaa programme bi ba two days after programme bi yëpp dafa am sécurité yoo xam ne ñu ngi toog toog biir kiram di ko jot di ko secure loo xam safaan bu war a ñëw ci moom rek ñoom ñu ñu aar ko Fabakary amul dara lu fi def moom kenn amul ben bés boo xam ne tam APRC mu ngi war a génn pour war a def dara o pour ñu ngi war a fere xaalis ak yooyu Fabakary ne ma ne seen loxo man dinaa génne suma poos ma def ko amut Fabakary li mu daan dundee sax waa parti bi ñoo ko ko jox parce que moom dafa ritaay woon hmm. amutoon fenn fu mu fu mu defee employment ñoom Awa Sagnang la ñoom Kafouti Kafou ak ñi ñoom Oli Pama ñi ñoo ko daan defal salari hmm. every mois ñu jox ko salari di ko fay ci pet Fabakary amul dara lu mu def loo xam ne ci parti bi la loo xam ne lu mu defal la boppam lu mu ekkati moom ci boppam ak waa kiram loo xam ne ñoom kenn rek ñoo ko def pour parti bi pour parti bi taxawul loolu amut mboolem loo xam ne lu mu doon def la tam nit ñi ñoo ko si jox kuréel sax pour mu def ko. parce que Fabakary rek rek mag bu em li Fabakary ak Ijam Fabakary ñeme na yenn fitna yi mënu ko ñun xale yu góor yi xale yu góor yi jigéen yi yëpp ñooy ñooy ñëw meeg rek ne doole ñemal nañ ko sax pour mu war a génn Fabakary su waree génn two o'clock su waree génn dem ci meeting five o'clock one o'clock kiram fees na tep ak ay doomi adam tep te ñooñu ñooy meeg rek ne jot nañ ko di confidence ir nañ ko aar nañ ko yóbbu ko ci programme bi moo dem ñu jox ko di first class treatment amul fu Fabakary di dox si moto laa duga ñu ñu wóoru moto bi jox ko sécurité su àggee itam toog bi gën a nooy fa toog su àggee foofu itam lekka bu ñëw joxe itam di bes lekka loolu laa lekka kon lan la Fabakary def loo xam ne ni waa parti militaire si defuñ ko Fabakary demul deful nothing lu extraordinary dafa mel dafa nekk rek ne mm. suñ supreme parti leader bi moom moo ko jox pour mu jiite parti bi because he was the majority leader te kilifa la nit ñaa ngi amoon respect pour moom nit ñi toppa ko su fa su su président Jammeh jëloon euh, ki gën a tuuti ci parti bi sax teg pour mu jiite parti bi sax dañ ko toppa parce que APRC is a discipline party duñ xita sarta in any way shape or duñ toog di jàm jànkuwante ak ak suñ kilifa yi mm. suñ nañu jom ñu ne xaw xaay gis ngeen ko ba léegi mu ngi toog écriturel Guinée waaye mu ngi ñoo joxe instruction fii Gambia te ñu ko def loolu discipline rabu est yi mu leen nekk di jox am yëpp topp but instruction yi mu jox est que euh, mi ngi yéen ngi si gis positif results parce que boo xoolee daanaka bi fall apart bi amee ñi ànd ak Fabakary ñi gëm jàmme ak ñoom ànd ak ñeneen euh, gis nañ bi élection yi ci amee tamit at the end of parce que euh, amoon na bene waxtaan bi ma seqoon li nga ma wax mooy xamu leen kan ngeen di àndal bot li ngeen xam mooy yéen yéen di ngeen you will go back to state house after the election loolu am loolu mujjëw la am hmm. dafa mel ni ñi àndoon ak Fabakary ñoo mujjee dem State House parce que ba gis ngeen ne ñoom ñi ngi am ay appointment some of them ñu leen di appointment ku ci mel ni Fabakary gisoo léegi moo nekk di ñu National Assembly speaker hmm. Hmm, eh, ak gis nga Fatoumata Diakhoumpa Cissé tamit ñu ngi ko moo nekk di ambassador of of South Africa est-ce que tamit jàmme lim leen nekk di jox nekkul di leen lor parce que xamatul what is going on here. non nekkatu fi parce que mi ngi Guinée équatoriale li nekk di xew fii nii xamul ko mais bi yéen some time ñu jox ko yenn ideas but li fi nekk what is really happening moom xamul ko so est-ce que nekkul di leen lor tamit. Mohamed man hmm. musuma la wax mun a wax ne. Hmm. jàmme moo la gën a xam li xew si dëkk bi yow. <laughs> <laughs> dina ma jaaxal di. <laughs> that's a very good question. yes jàmme Gambie ñor. Eh, ñoo mm-hmm. moo ñor président Jammeh mm-hmm. ah, li tax mooy la Jammeh moo la gën xam li xew si réew mi mm-hmm. um, ci it's a figure of speech waaye it's a reality Gambia ko ñor ah, Jammeh xam dina ko xam ba président ah, ba ba Fabakary di dem State House ah di dem State moo Sidi Ndiaye di dem mit président Barrow daf ko ko laaj Fabakary si boppam ko mu sax ne président Jammeh xam na loolu daf laaj ne ko ma ne loo day uti State House guddi mu ne ko def dee dem waxtaan mu ne ko waxtaan lu tax ànduloo sa exécutif bi lu tax nga dee dem yow kenn mu ne noo waxtaan la rek nii naa nga mën na pour kooku mu ko wane ne ko man maa ngi équatorial Guinée waaye yow sa biir kër li fa xew sama la ko a xam waaye because mu ngi am information Jammeh is in contact with people su waxuta man mu ngi wax keneen mu ngi wax keneen a keneen ak keneen he was a head of state for 22 years for God's sake am na loopholes yoo xam ne nii si biir dëkk bi fii Jammeh xam na ko ñun suñu ñu toog nii kenn xamu ko barke yàlla hmm. te he is he is dealing with that hmm. appropriately Jammeh mënut advice lu bon lu bon président Jammeh amut lu bon tey soo ñëwoon nga jox ko idea sax a good idea sax foog mu add si value foog mu am leneen lu mu ca yokka that's président Jammeh inflation board musuma dégg mu wax safaan musuma dégg mu wax mu advice nit sax hmm. loo xam ne ni du lu mu war a def amul benn bés boo xam ne ni wax nañoo président Jammeh te waxuñu ñu def jàmma waxuñu ñuy pour ñu muñ ku ñu saaga ndey sax mu ne ni ñu ko baral hmm. so kooku naka nga ko ñàkk a dégloo ki nga xam ne moom toujours rek mu laa teg ci yoon hmm. soo wàccee yoon mu wax la ko mu teg la ci yoon amul dara lum cay seet parce que bas diggante ma yàlla laa xool noonu la njiit di war a def noonu la njiit war a mel li nga xam ne dafaa dem rong hmm. daf ko teg wala ne lii dafa dem rong àndu si tey àndu si ëllëg te président Jammeh nag ci lu mu àndut ñun bokkuñ ci lu wax ne pour ñu def ko hmm. ñun loolu la ñu def ba ñëwee nag intu bam ñu ooyee ba jox ñu def ñu exécutif am ba tey hmm. defut lu defuñ lu lu mu àndut te ñun tam defut lu lu mu yëgut parce que dañ ko day yëgal njëkka balaa ñoo def anything su approuvé ñu continuer su approuvé ñu laf jël def si baax boona bi ok ok euh, loolu lañ ci bëggoon loolu lañ bëggoon tàmbalee rek euh, xam naa dinañ ñëw sax ci ëllëgu mm, APRC notre alliance bot balaa ñu ñëw fo euh, dañuy dikk ci li gën a fës bokk na ci TRRC white paper bi mooy government white paper on TRRC report génn na ci weer bile passé Euh, xaar nañ ko lu yàgg nag muy TRRC di folo xaar nañ ko lu yàgg white bi waaw. waaw donc instant Mbaye Fall ngeen doon xaar mu contesté élection be ba pare. waaw gis nga <laughs> ah, loolu léegi euh, <laughs> biñ génnee bokk na ci. Euh, first of all ñu dikk si nan nga gisee white paper bi ndax am nga ko riid nga ko gis nga ko wala biñ ko génnee siraan nga ko fenn ak it lan moo ci ban xalaat nga ci njëkk am. dëgg dëgg dëgg dëgg riiduma ko. ok glance naa ko rek on the facial value. Mm. seet on the front. xool front bi nii rek. Hmm. waaye ñorul ma. ñorul lu tax ñorul la parce que lot of victims si réew mi tey yi ñu ngi waxtaanee li nga xam mooy euh, national reconciliation ngir réew mi amaat jàmm ni ñu mën a continuer su ko defee victimes yi tamit am ndàmpaay euh, nga ne tiyaar lu toll ni tiyaaraar si dëkk yëpp doon ko xaar ni ñëpp doon ko xaar nga ne ñorul la pamul ah hmm? ndàmpaay hmm. nga ne ndàmpaay ekati ah, de tiyaaraar yi jël nañ euh, bagage yi jàmme yi jaay leen fifty million ñu ekati ko jox ko tiyaaraar pour ñu jox leen ndàmpaay doon nañ leen ndàmpaay kay bi pare waxuma de man ndàmpaay may wax mooy justice must be done ah aca isi leen justice waaw TRRC report bi loolu recommendation yi déglu la garmi waaw déglu la fii English law moo fi nekk fii du Sénégal de fii du French law de mm. guilty until you are found innocent non mm. non you are innocent until you are found guilty su fekkee ne Jammeh is guilty te am ngeen substantial evidence mm. isi leen ko si court bi yaa ba TRRC report bi white paper bi teguwul si ah, dëgg. ah yow riituloo nga ne riituloo ko. TRRC ah, ñu fi fi woon bi moo am di. waaye people. garmi ah? garmi ma nag ma laaj question dama bëgg nga déglu ma nag. waaw waaye tamit yaa ngi nga xëccoo parce que ma xëccoo man du ma laaj ma question dama déglu ok léegi tontu ma ci li laaj. waaye TRRC ba moo commencé. Hmm. ñaata nit nga dégg Essa Faal ak leneen wax da fen ñu ne waaw. ñaata nit ba si mbuub Essa Fall ko da ngaa fen mu ne ko waaw dama doon fen te téye na alxuraan waat bi pare ñaata nit ñaata nit gis nañ ñoo ooyee sookool jongulas yoo xam ne ñoom pare nañ pour taxaw fen pour wax li nga xam ne loolu la TRRC bi buga pour ñu wax ñu wax ñu bàyyi leen Ismaila Jammeh ñu bàyyi ñu téye ko fa juróomi at ba dem si juróom benni at barki de ma njaay three weeks ago lañ leen bàyyi five years caajuñ leen te ñu ne ñu ngi am substantial evidences hmm. nga bàyyi ñële téye fa ñaar parce que ñooñu ñëw pare ñoo ñëw taxaw fen pare ñoo ñëw taxaw wax yéen li ngeen bëgg pour ñuy wax ñoom dëgg lañ bëgg wax ñu leen waa baax na yéen toog leen fii juróomi at fana loolu mos a yem ban régime fii ban régime moo fi mos a téye nit juróomi at teg ko benn place caabiloo ko is that justice is that justice it's not TRRC bi teguñ ko ci dëgga Alaaji Baro ki ngi isi pour mu nekk am lead investigator bi mm. coupis la fekkal lañ jindi Amérique def ko ci bareel yi la laaw indi ko fii ci biir réew mi atem pour rey Yaya Jammeh ak gouvernement gouvernement nguuram ñu ñu rey si ñeneen nit sax ñoom ñu daw dem bañ demee euh, am Amérique si leen leen téye jàpp leen koot bi téye leen foofu sax duma leen ba tëj leen kaso moom moo ñoom banque ko yëpp kooku la ñëw isi côté pour mu nekk lead investigator Baba Gale Jallow mi nga xam ne moom mu ngi exile all his life papa ma yaayam yëpp dee ne si dëkk bi self imposed exile. ñu ne kooku mooy secrétaire général a mbay Fall bi nga xam ne ni moom TRRC report bi comme ni nga ko waxee nii hmm. report bi génnaagul sax moom taxaw na wane ne dafa bëgg a nekk président réew mi Mohamed Mbaye Garmi hmm. yow yaa Gambia Talent hmm. leen di seetaan yëpp bàyyi naa leen pour ngeen def match bi parce que xolal ñu ne wax bu mut pour dof la pour dofi la junjar rek doy na borom xel léegi léegi waaw euh, ci ci biir li nga wax noonu yow Euh, lu man li ma jaaxal kay mooy white paper bi man ci ginnaaw riiduloo ko am na recommendation ci nekk léegi man dinaa jël yenn recommendation ci nekk man mu wax mhm. ok euh, bokk na ci recommendation yi bokk ci TRRC bi euh, white paper bi mu government mooy government ko release na TRRC ah, government bi ñoo ko release ñoo ko white paper TRRC ñoom day jëf give their report and ñu indi after six months si leen ñu indil this white paper boo xam ne ñëpp ko seetaan mhm. waaw bokk na ci mooy jàmme dañ koy prosecute mhm. ak ñim àndaloon bokk na si Adja Aïssatou Ndiaye Seydi wéer ko fan ah wéer ko si lan oh, very good euh, fi ñu ko wéer mooy euh, yim yim def hmm. lan fi ñi nga xam ne rey nañ leen kan la jàmme rey ah novembre euh, xale yi moo leen rey xam nga déglul déglul déglul a ah kon di nga moo ma faraba xale yi kon waaw da ngay déglu rek kon di nga nangu ne faraba xale yi xale yi dee riñu faraba kon ja baro moo leen rey loolu moom di nga ko nangu fii li ñu wax mooy te it gisoon nga ne am nañu ñu testify ne jàmme ñoo leen ñoo moo leen sant ñu def loolu gis ngeen ko ci euh, ci li nga xam ne moo moo doon xam ci euh, tiaras yi sitin si bu daan am gis ngeen ko jëluma loolu ok parce que am na ñu taxaw ko am ni góor gu mbuub laa la ñu Essa Faal ne ko da ngaa fen mu ne ko waaw dama doon fen te waat na pare ok Pa Modou man li ma bëgg wax ñaata nit ñoo ñëw foofu taxaw fen laa wax fen Essa Faal ne leen da ngaa fen ñu ne waaw dama doon fen ñu nangu ko te waat nañ téye nañ alxuraan waat ba pare Mohamed TRRC boobu noonu ku fa toog da ngaa wax lu neex Essa Faal su fekkee ne waxuloo ko billahi walaay tala doo am lu la gënal doo am lu gën dafa gi dafa jëlee la neex Euh, li ma bëgg mooy. ma ne Gambia dafa am constitution. dafa am téere buy doxal réew mi. Mm-hmm. suñ xooli Quran bi ak suñ Bible bi mooy si constitution bi. Mm-hmm. constitution boobu nag moom la Adama Barrow di use. Mm-hmm. five phase yi mu ni nii ak five phase yi mu dugmal lii pour war koo def yëpp kon 1997 constitution bi la moo use. ok naay 1997 1997 constitution. waaw loolu dinañ ci section 69 of that constitution. subsection A B and C. dafa wane ne any sitting president. kenn benn court of court law fii si biir dëkk bi war ko mën a court war ko koo mën a jooj in under any circumstances dafa def liggéeyam moo tax loolu moo loolu moo ko ñoom George Bush loolu moo ko ba ñoom Tony Blair ñoom uh, Gordon Brown mm. a ah, mm. ay ak naka lañ ko waxti ñoom Sarkozy ak ñoom Obama mm. ñu ngi rey nit ñi depuis 2003 gaa ngi yóbbu nit ñi woo illegal war in Iraq ba tey nit ñaa ngi dee kenn yóbbu George Bush uh, court kenn yóbbu ko ICC Kenya will Tony Blair ICC. As a matter of fact, they are even worth more than, what they used to be. Parce que tey Tony Blair fu mu taxaw am fa meeting three hundred thousand pounds sterling lañ ko fay every meeting bu mu def that is more than him being a prime minister in England. You understand my point. now mm. gis nga the same immunity mm. bi président yooyu yëpp am mm. immunity boobu la président Jammeh am while si moom he was protecting the country parce que dafa taxaw mu waat ci Independence Stadium bi mu téye alxuraan mu ne moom dafa protect the sovereignty and the territorial integrity of this country ok without fear nag of favour so loolu la ñu defal nag fii 22 years yi fi nekk ba mu fi génn ni ñi am jama jàmm am si réew mi ku fi rey ñu rey intentionally ku fi luwaa wax ne dañ la war a rey dañ la war a rey loolu moo xew America loolu moo xew China loolu moo ah fii loolu dafa am la ku la la dooree laa la wax Moustapha Danso 1981 moom lañ fi njëkk rey fii Gambia wala taati neen yaram yi leen ko def sax la wax ne fii muy dox fii mm. xëy na yoo fi woon mm. o oh, xëy na yaa ngi nekk xalel mm. Danso moom lañ njëkk a rey fii biir Gambia Eko Mahane la reyoon. ok léegi loolu nga. loi ku rey ñu rey la loolu si constitution yi Gambia la nekk loolu dañ dem référendum Gambien si ñoo ko vote. ok nekku na président Jammeh ma ko fi de loi bu nekk si suñ constitution la. ok good so man li fi la ma bëgg dama bëggaat ñu. tey Sénégal a ngi ok a ngi naan Penda Mor. ok li ma bëgg ñu waxtaanee mooy dama bëgg ñu waxtaan waxtaan boo xam ne a the end of the day ñi ñi seetaan ñoom it dinañ ci am luñ ci jëlee man a gis tamit yow sa taxawaay ci euh, lan nga am ci tiaraat si bi xam nga white paper bi maa ngi doon waxtaan di ci indilaat ngir ñu dikk ci xam nga lu tax ma bëgg ñu dikk ci yaa ngi joxe sa sa position sa position mooy man su ma la déggee mooy yow white paper bi ànduloo ci ci recommendation yi ci nekk te maa ngi doon limal recommendation bi ko soog la àndu sax waxuma YPP de. waaw TRRC bi moo moo indi YPP bi <laughs> TRRC si TRRC naka lay àndee si YPP. waaw very good ok moo tax ma bëgg ñu ñëw ñu waxtaan ci dal. go ok good. Euh, ma <laughs> laaj ma dafa am yu ma am laaj la ko. <laughs> laaj ma loo neex man la ko ñëw ci ci loolu la koy laajee ci ni ma la ko war a laajee ci teggin euh, ñu waxtaan ci ko defee ñëpp euh, understand du dëgg mhm. ok ñu dikkaat ba tey si jàmm du ma fa jógee parce que tamit yaa ngi wax waxi joj boos ak li nga xam ne mooy humilité yi ñu am because of constitution moo leen ko may fii nii dafa am ñoo xam ne they are victims on the Jammeh era ñii ñàkk nañ seen jur mm-hmm. ñii ñoom de are affected ñoom ñii tëj nañ leen ci unlawfully ñii uh, sàkkal nañ leen pexe ñii nekkatuñ fi génne nañ leen fi ci lu bari sax ku nekk ak victims bi nga doonee in one way or ni ak ci ni nga ko doonee biñ jógee foofu nag ñu setopee TRRC indi ay nit ñuy testify ñii di wax ne man maa def kii moom a sant man maa def ki moo ma sant ñu bari tudd yaaya mm-hmm. am ñoo xam ne ñu ne yaaya moo ma sant ma rey kii naan nangam kii maanaam yu ci yu yu fi xew. bañ indi yow gëm nga loolu ah non man nekkuma fi pour gëm ak non man nekkuma fi pour déglu rek xam nga problème mooy man nekkuma fi pour gëm ak weddi man dama ñëw pour laaj la ni ki ñu may laaj keneen ak keneen ak keneen mm-hmm. parce que démb amoon naa fi keneen am naa nit tey ma am la yow donc man dama lay laaj li ma la laaj mooy mm-hmm. ñii ñu lim ñëpp ne ñoom ay victimes lañ under the am ñu ko sax jiiñ ne ah, wa ifin sax am na ci bokk ci wàllu li nga xam ne rek mooy réeb nga baal ma ci ci kàddu bi mm-hmm. jiiñ leen ko white paper bi génn ne jàmme dañ ko war a prosecute parce que based on those facts yi nga xam teg nañ ko ci euh, non non xam nga fact non allegation right ok ok ok allegation right am problème ah. su ko defee muy ay tuuma yuñ teg foofu ok good léegi teg nañ ay ci ndoddal euh, euh, um, Yaya Jammeh ak ñim àndaloon ñenn ci ñim àndaloon mm-hmm. ñu ne dañ leen war a prosecute loolu mu la white paper bi wax muy recommendation ñoo parce que jox nañ two hundred and recommendation la TRRC def mhm. ñaar rek la ci gaay dax mooy di amnesty of Sana Sabally ak euh, bi nga xam ne mooy di di machinery judges yi yooyu rek la euh, government bi daal di génne lu tax benn bi mooy amnesty ñoom d'accord pour ma jox amnesty Sana Sana ok ak machine judges euh, judges tamit liñ believe mooy those lawyers yi nga xam ne dañ jóge woon ci yeneen réew ñëw fii nii waaye de lebel dem as machinery judges ba pare ñooñ Gambia dafa am ak ci government bi li mu wax dañu am ak relationship ak those countries so to protect that moo tax ñu génne lool so man ci li may ñëwaat mooy yaa jëmee lim ko jiñ ñi kuñ ko jiñ est ce que yow as a genuine citizen as a genuine citizen mënuloo bàyyi justice mu def liggéeyam bu fekkee moo def lépp loo xam ne loolu la loi bi santaane ngir ñu def ko ko ñu def ko ko. waaw waaye man man loolu laa wax de man dama ne. waaw innocent until you are found guilty. ok doy nañu. ok good white paper bi tamit moo tax soo dégloo xam nga yow danga <laughs> ne white la lan la ministre bi wax ah, man da xaw ma la ministre parce que dégluwoo ko aw ma ci interest la la wax nii ok wallaahi ba mu a ci dama ko fay da nga fay déglu ma ko tey ba tey lu ma fi wax si ne la ministre bi wax damaa fen parce que aw ma gisuma lu ma jaraloon pour ma jël minute time boobu noonu time bi ma spend nii is more important to dan hmm. ma toog di déglu déglu justice minister pour mu wax affaire TRRC report or oh, white paper fo the simple reason ne is cooked up man xam naa loolu. ne dañ ko tooga. dañ ko pour tilimal pres deri président Jammeh man xam naa loolu soo soo soo ma laal tuma si suma boppam ba ma commencé di déglu si ah. benn ñaari yoon ñetti yoon ñeneenti yoon ba gis gars yi di ñëw ñii di fen ñi taxaw ñi téye alxuraan di fen ñii di ma gis setup bi ma xam ne ñii de waste time state resources la di fay sa mbay faal ak gaayam yi that kind of money pour ñu ñëw toog waste suñu time distract ñu while government bi ñoom ñu ngi wane seen ineptitude man distraction boobu noonu safuma ñorut ñu tam am nga lan moo ñu ñor nañ ñu wax naka lañ nag nit ñi war a dundee tey di price hike yi nekk si biir dëkk bi fii ak suñ dëkk bi ni ni si nekkee foreigner in this country right now ah maanaam ga fi nekk nii lan la lan lan la in control of lan la Gambie Gambie am suñ government bi sax Sénégal yi Sénégal sol ñoom ñoo nekk di garder suñ président wala boobu mi moo waraloon mu am waaye déedéet lu tax naka la yaay jame warale loolu. dañ ko win mu ne déet ok dañ ko win mu ne non du dëgg ah. mais loolu moo am non loolu dëgg ah. ñaari resort lañ joxe fan la loolu mos a am. waaye nga accept nga wax Mohamed Mbaye Garmi fan la ñaari resort amee si benn élection fan ban dëgg la mos a am benn élection bu am ñaari resort wax ma fan la am. ngir yala ak yonte ba ma man ma cancel suma interview léegi maa yow ma génn dem ñibbi. ñaari fan la loolu mos a am tontuma rek góor gi. déglu su fekkee ne mën na maa tontu ma man lan ma man tontu tontu la. non xam nga lu may déglu man da nga may sol non da nga may déglu man xaaral ñëw fi pour laaj la xam nga woowu ma la ne laaj ma dama ne Paa dama la invite si sama. waaw dama la ne taxaw di président Jammeh bi ñu njëkk a mm. force risol bi mm. fii initiative risol bi àdduna si yëpp dégg nañ ko sami sax dañ ko doon dañ ko doon congratulé. xool na Adama Barrow mm. mu congratulé Adama Barrow wan ko nag ne ko ma ne dëkk bi mënuloo ko yóbbu te àndut sécurité hmm. am sécurité hmm. force you have to put ñëpp rafetlu ko ñëpp rafetlu ko ñëpp rafetlu ko ñëpp juróomi fan après IEC same IEC hmm. Aliou Momad oh, yi demoon élection mu woon leen leen moom ñoom dañ def mistake si base waaye booy base la dama balal waaw déedéet waaw xam nga boo waxee mistake comme du sol bi dafay mel ni comme du janal ok ok ñëw déedéet dañ def mistake ok waaw mistake waaw m i s t a k e mm. mistake waaw njuumte waaw léegi mm. mistake mm. si ñun si suñ constitution bi suñ bible bi léegi ak Quran bi waaw constitution bi li mu wax bu Gambia mu ne su mistake amee in any given election ñaari provision la joxe mooy ban ak ban a mooy pour nga recount nga nga compté waat mm-hmm. loolu dafa fekk ne mm-hmm. ba ngeen compté ba pare mm-hmm. delloowaat ngeen pot bu nekka mm. delloo waat ngeen fa euh, li ngeen ba pare ngeen siil ko mm. in case ngeen war koo compté waat mm. in case of euh, suñ suñ élection boobu gars yi woon loolu so second provision bi was pour ñu dem re-election these are the only two provisions don't take my word for it go to the constitution find yi nañ dinañ mën nañoo def loolu then guys don't take my word for it go to the constitution and find These are the only two provisions you have in the constitution we um, uh, uh, provide. Mm. In case there is a mistake mm. in any given elections, ñaari provisions rek la joxe you either recount mbaa re-election léegi recount possible toon parce que jëloon nañ maabul si yëpp bigim si yëpp jaxase leen léegi benn option rek a des di mooy pour ñu demaat élection naka ñu pour ñu put that petition right there in the in the in the Supreme Court Gambie yëpp taxaw ne non pétition du am. parce que Gambien su balal ma rek ñoom doyaloon nañ ci balal ma rek waaw doyaloon si jàmm waaye loolu mm. kaama ñëwaat na 2020 2021 mm. opposition yëpp ñëw nañ taxaw ne booy dañoo dem pétition booy ah, nguur gi ne na pétition amut gis nga yàlla ñëw wane ne waaw li ngeen doon bañ démba tey tey tey tey tey tey bul wax opposition bi yëpp loolu ban opposition benn kay moo ko fi bañ ah bul wax bul wax opposition bi yëpp déedéet opposition yëpp laa waxee ñoo ba ñoo doon def peut être twenty twenty euh, twenty one ah. waaw Ousseynou Dako waaw UDP waaw GDC ok ak ñun yéen ah, ngi àndoon ak GDC yéen ngi àndoon ak GDC waaw ok waaw ak ah, Aïssa Mbaye Fall waaye ñu gisuloo leen moom eh, Issa Mbaye Fall afta moom demul woon demul ko kenn rek moo dem ko gisuloo leen woon kër jël lu ko déglu on technicalities Pa Modou that Issa Fall bokku ah, parce que later on dafa def press conference ci press conference waaw later before ñu dem ñuy dem balaa ñu dem court ok ñëwal opposition si laa dama la ci boole Essa Baye Fall because mu ngi fa woon. Hmm. nataal caméra ko gis di mooy mu ngi dem foofu noonu mooy. Ah, gis nañ ko fa thank you very much. Hmm. kenn ku seen daama. Hmm. so obviously opposition si laa wax and opposition si ñoo fa nekkoon ñoo ñëw taxaw pour de pour def pétition boobu. ñoom ñoo def pétition boobu sax. ok dara génnu ci pétition amut Gambien si amuñ di di di di opportunity. pour am a fair hearing. bu ñu déglu ndax li ñoo wax dëggalaam di mm. ndax évidence yi ñu am ndax ñu am substance mm. euh, substance na or not amuñ opportunité boobu so lang doon bañ 2016 mm. <laughs> ñëw na rek mu ñëw xapu naa 2021 xapu naat na lépp because of yéen a ko bañoon démba tey yéen a ko bugga nguur gi bañ ko te bele nguur gee ko buggoon nit ñi bañ ko soo mu ñëwaat indi opposite muy kaama loolu mooy kaama kaama is a bitch gis nga gis nga bële ba ko nit ñi bañee hmm. xam nga amul anata yaaya xam nga jugee na fi waaw bii nag nit ñaa ko bugga nguur gi bañ ko am am am ah, amul ah, nit ñi ñëw vote nguur gi baro dafa dafa dafa win no ah, no landslide victory la am no landslide no victory ba pare yow sa sa inauguration booy nga half stadium non dafa tàng situation bi dafa tombé mi ngi tàng situation bi ñëw bi ñu bi ñoo voté boobu tàngutoon nga voté doo fa toog lu yàgg lu tax doo fa toog lu yàgg Mohamed waxuloo dëgg loolu dëgg ah. loolu ba tey bokkul inauguration ma ne inauguration moo voting voting nga dee spend more time sa daan voting moo gën a important inauguration loolu it voting ah. moo gën a important so so therefore nit ñi ñi dinañ votal Adama Barrow waaye duñ dem si inauguration pour mu taxawaat ñu te mobil. Euh, ñan ñoo ñu bari. gis nga mobilisation bi nga xam ne ñan ñoo ñu bari. ñun ne Kota stadium ñu ngi foofu. ñan ñun ñu ngi woon foofu. ak yeneen ñaan nit ñi ah, boo xoolee nit ñi ñëw nañu wuy si ko. feesal stadium bi du caaxaan Paa Modou Paa Modou ka léegi nañ dellu si waat. xam nga la non léegi important euh, Paa Modou Paa Modou euh, président Barrow nit ñi ñoo ko votal. Mm-hmm. nit ñi ñoo ko votal. Mm-hmm. mu win landslide victory. Mm-hmm. lu tax alaawut lifin bi. Um, um, code bi. code bi du moom moo dogal code ah. bi. non non ah, non bi mm. loolu len lu indépendant la ah, code bi gars yi dem nañ dafa dem nañ code bi ñoom ñoo daal di stroke out li nga xam ne mooy mooy mooy pétition bi because of naka si la si ban temps technicality technicality waaw technicality ok technicality moom nga ayee Gambien yi booy pour ñu am seen ñu doon def pétition bi lu tax technicalities laa la wax ni ok ñoom ñu doon def pétition bi ak lawyer bi ñu am yow nga ne si nga bokkoon ci nga bokkoon wala ci lan ci ñu doon def pétition boobu ñu bañ. ok man man si lay lay so ñoo toogoon foofu di di def pétition bi. how many lawyers. ñoo ne non non yow yow fa di. yow laay laaj so ok dama ñaata lawyers ko def on ak UDP seen seen UDP ak yéen opposition bi nga xam ne ngeen yéen def pétition bi. Mhm. lawyers yi ngeen jëloon yëpp. Hmm? mënuñoo fexe ba. def pétition boo xam ne bu ñu demee euh, before the court dina mën a jàll. te duñ ci duñ ci gis benn technique pétition is a pétition. ok da ngaa am sa evidence. waaw substantial evidence. waaw especially to the high court. waaw high court mun loo faa dem rek with loo xam ne amuloo amuloo. substantial good good substan material evidences la ngay am sax. Mm. substantial loo xam ne mm. is enough to win a case. waaw they took it to the high court. Mm. loolu tax high court bi accept case bi sax. in the first place. waaw la ca jaar na ci biir. Mm-hmm. diggante papa ak doom. ah. Hmm. ah Papa doom euh, euh, ah, loolu maa tawut. Ah. loolu maa tawut loolu maa loolu ah, ok it doesn't matter to you. no since the um, justice is independent. no it's not independent. ok it's not. gis nañ tampered with but gis nañ fi fa euh, ki nga xam ne di former di that euh, euh, nominated member how to call again maa ngi fàtte sax ki nga xam ne moo doon moo taxawloon UDP na West that jigéen bi damoon na court ak ak ak baro mu win leen bi biñ ko bëggee génnee biñ ko she was a nominated member ci National Assembly bi ok damoon nañ court ak dafa dem court ak euh, président Barrow parce que daf ko bëggoon génnee foofu noonu as as euh, MP. nominated woon nominated woon. demee. Hmm. court bi moom moo ko win. waaw still now foofu foofu la saaf na taamam ba jeex. Yakumba ah, Yakumba Jede waaw ndax mos ngaa gis ku mos a win euh, wala bu amee man xaw ma ko Ondo Jammeh. ah kay man su amee xaw ma ko kan la. Kemeseng Kemeseng ke ah. ok Kemeseng man. a ah, Kemeseng dem na fi court bi. against the Jammeh government. Jammeh government and he won the lii moo xamu naat fii ci. KMSN kon kon di justice. loolu demal demal si lifin demal si système bi demal nga find loolu demal nga diggin. laaj ko ah man si télé laay de. ok KMSN dem na fi court. so nga bëgg a wax ne léegi nga bëgg nga bëgg a wax ne this justice is not independent. no justice bi is been tampered with because dañu waroon a allow a fair a fair hearing dañu waroon a déglu parce que evidence yi yëpp a tege. dañ waroon dañu waroon a alaaw pour suñ jox suñ suñ ko am suñ looy si sax ñu flex seen masul si pour wane ne xoolal lii am na fi justice am na si dëkk bi xamul xamul na Kenya same thing la ngay def same thing dañ alaaw fair hearing dañ ko alaaw hmm. code bi take place ñu isi evidence si yëpp ñu wane tap tap tap tap tap ñu toppatoo everything la la wane ñu euh, ñu demaat elections ok so loolu eh, wax dëgg yàlla loolu dañ ko war a alaaw rek dañ war a alaw loolu ñu ne ah ñu démocratique dispensation la mm-hmm. ñoom loolu lañ wax ne ñu démocratique dispensation ñu Gambia ah wan leen ni ñu Gambia waaw ñu Gambia wan leen ñu ñu Gambia lu tax alaawuñ ñu Gambia dañ ko waroon a rek su ko defee nit ñu continuer naaw mm-hmm. ndegem loolu xappunu tam mm-hmm. léegi nit ñi bàyyi nañ loolu mu dem jàllana parce que nit ñi defuñ ci coow defuñ ci nothing dañ bàyyi mu romba National Assembly élection si ñëw ñu dem into élection again kenn su fi problème ñi bugg a vote fi ñoo bugg a vote vote nañ foofu hmm. ñi buggut a vote toog nañ seen kër yi no problème hmm. Gambia fii nit ñi nit yi jàmm lañ xam nga lan lañ soxla dañ soxla a liida somebody koo xam ne mun na yóbbu to the promised land this is what we need nothing else nguur gu parfait amul fenn si àdduna nit ku parfait du am fenn si kër àdduna perfection yàlla moo moom département ni yàlla la ku jàdd yoon ñu rëq sa ndig ma ne loolu loolu loolu nag loolu loolu allah kulli alil la loolu moo fi xew te tey sax dama bëgg a wax ne faraba ñi mm. dee faraba noonu xale yi rey faraba dama bëgg a ne président Barrow moo leen rek xam nga loo gis dama dama laaj rek waaw xam nga du man maa war a tontu yow ma war a tontu ok eh, ok léegi Arona Diatta bi nga xam ne moom tam daf doon démonstrer peaceful demonstration in Kanilai mm. ñu tur bu si sami rey ko mm. ndax kooku Adama Barrow moo ko rey xale yi rey ti Busumbala ndax Adama Barrow moo leen rey. naa la Adama Barrow mi taxaw ne moom sacrifice na doomam sacrifice alelam sacrifice def everything am pour make sure ne dëkk bi uh, mu ngay rule dëkk bi si jaama du nangu ku ku xajamal réew mi Adama Barrow mi taxaw ne moom sulli na ay niw dafa téere ah kooku duñ ko yóbbu koot ok good li <laughs> ñu ko nga wax xam ne ñu taxaw tiaras yi confesse yooyu allégation la loolu allégation la loolu amul fenn fuñ ko wér kii Adama Barrow moo taxaw mu wax su Yaya Jammeh taxawoon wax ne moom moo def lii billahi wala talaay ma ànd si whatever lu ñu wax su Yaya taxawoon comme ni Adama Barrow taxawee wax ne moom moo sacrifice doomam Adama Barrow mu ne moom moo suli niiw del si biir niiw yi ñu fa def téere li Adama Barrow wax noonu su ko Yaya waxoon ma dénonce ko bés boobu laay te ñàkk a bés boobu laay ñàkk am affaire am moom ba àdduna ak àllaaxira Pamadou. waaye allégations la tey tuuma bu ñu jël teg ma man Pamadou Ba man ñaata nit tuumal man bi ma taxawee fii ne Yaya Jammeh moo ma yónni siyaara suma doom dafa génn Facebook suma doom dafa delete account am bi because of saaga ndey ma saaga ne waxuma dëgg damaa fen fi waxa Jammeh rek what is most what is special in talking to Jammeh what dama war taxaw man di fen di war a taal suma moto dem ba siyaara di jënd pañe guru nine thousand dalasis di ko war a yóbbu ci di eleven consequences of uh, siara dooree ko san santanto wàcca si suuf lan lu ma si jaral fen waaye lu nekk lañ ma wax dafa fen kii dafa wax important kii jaamee dina wax a moom lii leen lii leen lii lu nekk lañ wax ba bés bi jaamee taxawee àdduna si yëpp toog mu taxaw wax di ñëpp déglu ko Kanilaay mooy di di 15 octobre bi nga wax ni mm-hmm. Ali Yaron xam nga loolu noonu man faale wu loolu président Jammeh tam mu faale wut loolu because allegations la tuuma la lu ñu jël teg ci boppam ci ndoddam ok dafa mel ni tey Ousmane Sango mi tey rek ñu ngi ko tuumal euh, Aji Sarr du Sénégalais dégg ñaata ni ñu fukki nit ak ñeneen day nañ ci loolu pour taxaw rek wane ne loolu du dëgga euh, Mr Mbow dafa la jox exemple rek tuuma tuuma la fekk gisuñ dëgg gi fekk dëgg gi ñëwul man mënuma taxaw man duma man duma façon yi nit boobu mm-hmm. man su dëgg bi ñëwee suñ demee ba gis dëgg bi mm-hmm. ah man tay boobu laay wax waaye fekk gisaguma dëgg mm-hmm. ne da tuumal nit rek man bokkuma ci parce que man duma bàkkaar man duma bàkkaar bàkkaar jàmbur de man suma oon bàkkaar laay def te loolu si yàlla laay bàkkaar duma bàkkaar ci nit oh, su ma tooñoon sax tey naa la baalu ah waaw duma fi te tuuma yooyu nag jaara waaj bi mu génnee yi ci nekk ne jaame dañ ko war a prosécuer ak yeneen waaye du wax xaaral xaaral moom pare rek euh, ñi nga xam ne ñooy euh, ministre bi li mu wax sax ci press conférence bi mu doon séq ak euh, taskatu xibaar yi xamal leen ne lii tamit bu ñu demee ba fekkee évidence yooyu noonu sax doyul dinañ def seen own investigation kon xam nga ne kii kay bëgg naa teg mbir mi ci yoon léegi su defee investigation investigate affaire yi tooral yi ba ak yaa ngi fi wax waxi constitution lii la wax. nangam ak nangam ak nangam man ma ne déedéet. ah lu tax man ma ne déedéet. ok parce que président est-ce que yow bëgg nga dëgg. waaw déedéet man déedéet déglu déglu leen. ok ñëwal maa ngi lay parce que tey maa ngi la xam nga maa ngi la fi wax nga ne yow warloo tontu wax na wax nga dëgg yow yaa ma invite pour man may tontu nga ma laaj may tontu waaye su ma toogoon fii pour laaj la li ma la laaj doo ko tontu kon. parce que dama leen ne Adama Barrow ndax xale yi rey Faraba ndax Adama Barrow moo leen rey Aruna Jaata njabootam gaa ngi nii njaboot gu ndaw la fi bàyyi jabaram ak njaboot gi ñu ngi ne la rey nii tur butu tamit mooy di force fasin ku njëkk a rey fii si nguur gi nguur gi nii te fekk ñu ngi waxoon affaire yi never again Gusumbala ay jigéen yoo xam ne ñu ngi nampal Ismaila Jammeh maa ngi la ko wane juróomi at laa la wax ñu ngi leen teg si kaso bi parce que dañ leen wax ne pour ñu ñëw wax nangam si TRRC bi gars yi bañ nanguwuñ clémence bi ñu toog ñu ne ñoom dëgg la ñoo wax ñu leen su fekkee dëgg la toog leen fi gars yi nangoo toog juróomi three weeks ago lañ leen bàyyi from 1997 2017 eh, loolu du justice loolu du yoon teguñ ko ci yoon so kon man maa ngi ne yaa ngi set président soo gisee ma jox la exemple yi ñoom George Bush ak ñoom Tony Blair ñi nga xam ne ñu ngi yóbbu àdduna si war from 2003 ba tey millions of people la ngi dee laa wax ni waaye lool du benn problème si Gambien déedéet Amérique ko def it's no problem it's no problem Amérique Angleterre lañ no problème invite nañ fi Tony Blair sax ñëw na fi nii nanga ma a warmonger angale yi seen boppam la ñoo taxaw ñu ooyee ko un liar parce que dafa taxaw mu ne ñoom dañ fen yóbbu àdduna si woo Chilcock inquiries Chilcock inquiries in England Chilcock inquiries foofu la taxaw nii comme ni ma interviewé ñi toog nii panel bi toog nii yaakaarloo moom ni mu taxaw ak noppam yi Fox muy fen mu taxaw ne ñoom dañ fen dañ yóbbu ni ñi woo kenn yóbbu ko ICC kenn yóbbu ko ko ba tey mu ngi dem ma ne la meeting bu mu am benn meeting la la benn bu mu am rek is three hundred thousand pounds sterling lañ ko fay ñëw bi ñëw gàmmee noonu rek loolu la loolu la woot that's that's what's going on Tony George Bush is the same thing mu ngi naan coffee mu ngi dem swimming mu ngi dem nappi ak yooyu yëpp la la wax nii te mu ngi yóbbu nit ñi woo moom si boppam taxawaat na sax mu ne waaw <laughs> that's the worst blunder bu gaa yi musa def ci kër àdduna nit ñaa dee ba tey dara dara rus gi dara génn si. ndax am na benn Irak a ngi nii. ak yi ñu ngi nii Afghanistan non dama la bëgg a wax dëgg nga la. ok waa président et sitting président et eh, sitting président. ku toog ci toogu. ah mu ngi protect di di di di am dëkkam. Mm. dina la sikki yow. Mm. fo booy booy tam na nit a ngee bil léegi nit a ngee dee. léegi rek la la yaa ngi ko sampare nit a ngee dee. bridge. Mm. wala bridge bi nii ñeneen nit dafa dee bala moo pare nii dafa njëkk a collapse collapse second time. foo ah. nit ñoo fa dee bala ma rek. bala ma ma ma am problème man dama bëgg pour may pour nga understand man fan de dee bàggee suma man li maa wax ni dafa am fu ma ko dee mun loo bil néeg ci bil defar néeg rek rek rek nit hmm. nit dee si hmm. nga defar biir gi moo ne di nga defar réew te kenn du dee loolu possible pour hmm. gi dafa unfortunate nag dafa unfortunate te billahi wallahi taala mboolem koo xam ne is an affect affected victim in one way or the other whether it's true or not loolu is not something somebody will be proud of particularly man nga xam ne man nit sax duma kon duma la ñopati sax waa ma la gaañ amul benn intention to harm anybody whatsoever ok waaw so su fekkee dëgg la mm-hmm. hmm? su fekkee yoon la mm-hmm. dëgg la mm-hmm. nañ ko isi ñu der ko si yoon su fekkee du dëgg nañ ko jël tege ko saay parce que ma ne la si biir TRRC boobu la la wax composition bi li ko waral la la wax du dëgg teguñ ko si dëgg loolu nga jàpp yow no loolu moo am da moo ne Alaaji Bara du ko du ko Alaaji Bara fete la yeneen nit ta dee si coup d'état boobu 31 décembre yeneen nit four people dying ñoom ñu delluwaat daw delluwaat Amérique laa ñu ne niix téye leen teg ko kaso moom moo banque maa ne kii naka njaay boobu noonu ki leen sponsor woon ki leen joxoon two hundred and fifty thousand dollars bi pour ñu jël euh, euh, euh, fetel yi dañ leen tëj six months in America bañ leen bàyyee si la gars yi ñëw fekk nguur gi bécceeku na si la gars yi ñoom ñëpp ñëw nii ñu commencé di jël kii kii Baba Gale Jallow he was self-imposed exile all the time of his life man kooku suma classmate la woon maa moom ñoo bokkoon classe form one at Armitage High School Baba Gale I know him I know him very well we used to have so much respect within each other you understand mm. so obviously do ma wane ma composition boobu te Essa Mbaye Fall wane na boppam wane ci naka ah, balaa TRRC report di génn sax moom taxaw na contesté na fekk na mu def li mu war def léegi def na lead counsel ba pare soo léegi dafa war a taxaw nekk président. non amul he's a citizen. am na right as a nag Mohamed yow tam nag. Mm, ah yow yow pareegul. Mm. yow liggéey pareegul sa report bi sax waaw moom nee na moom li mu waroon def. déedéet waaye report bi génneegul because report bi ne ñu ngi a jot léegi. non li report bi moom jox report bi ñoom dañ ko génne nekku dañ ko waroon euh, euh, euh, public side ñu koy génne jox ko public bi ko hmm. jox government ba pare am na some copies report bi sax am na copies yoo xam ne nit ñi jot nañ ko stakeholders yi jot some of the journalists report bi sax mi ngi fii taaral si report bi li ci nekk ak yëpp ak hmm. ñi testify li ñu wax noonu yëpp mi ngi foofu hmm. soo ko ritee di nga gis yu baree bari yoo xam ne def nañ ko fa léegi li nag mooy six months yi government bi waroon am pour mën a ñëw nag xool report bi a def ak nangam ak nangam so yooyu noonu moo yow ginnaaw riiduloo ko ginnaaw doo doo ci yow daal. aw euh, ma ci parce que amuloo. parce yàlla moom ok amuloo soxla. léegi yaa ok ma téye ma riid ko ma ko. waaw yaa ngi ci biir waaw ci biir loolu ci biir yaa ngi wax waxi euh, victimes yi Amadou yaa ngi bàyyi xel ki nga xam ne mi ngi lay seetaan xëy na moom dañ fa euh, ñàkk na waajuram te ki mu jàpp ne moo ko xañ waajur yaaya la hmm. ki mu jàpp ne moo ko xañ waajur mooy yaaya keneen ki nga xam ne ñàkk na ci jëkkëram ku mu jàpp ne moo ko xoñ jëkkëram muy moom yaaya la ak ñoom àndaloon mm. léegi kooku nag mi ngi bëgg ñu indil ko mm. tegal ko ki nga xam ne moom lañ jàpp ne moo rey jëkkëram wala yaayam wala whatever euh, euh, ki mu ñàkk ci mbir moom noonu yow nga bëgg a toog fi wax ne loolu noonu yow gëmuloo tiyaaraar si bi ni ñu ko sete bi gëmuloo waay péb bi euh, ki lay seetaan tey ji yaa yaa ngi gën a naqari xelam ak xolam Pamoudou ah, man waaw may ma waaw ok kii nga xam ne nag famille amul jabari anul na jàtt nag wa gis nga ak yaay ak papa ak xale yi nga xam ne ñoom lañ rey Faraba nag. ok good loolu loolu loolu noonu police. Ah, police police mi ngi def investigation am kañ. loolu mi ngi dem kañ. ay lii bi mu amee xam nga IGP IGP IGP bi fi nekkoon loolu bi mu xew xam nga immediately moom ci la ci la ci la la resign. kon loolu lan la muy. Ah, non déglu rek. resign resignation am lu mu miin. lu mu mooy ah. moom loolu noonu waruloon a am is unaccepted. ah yes is unaccepted. ah soo léegi police mi ngi def investigation am even bu fekkee police deful investigation am sax baraw bu fi jógee ëllëg tamit lii nii. 2017 ba léegi yaa ngi def investigation. xam nga ni ray la. 2017 ba tey. gaa nit lañ ray nit lañ ray dama laajte rek. non déglul déglul euh, Pa Modou xam nga soo ma dégloo man dama lay laaj ay questions soo ma dégloo parce que dafa am lu fi wax lu ma lu ma jaaxal xam ne dina ñi nga xam. waaye président Jammeh ñu bari dañ ko tuumaal ñi testify even Sana Sabally mi nga xam ne àndoon na ñoo bokkoon li nga xam mooy 1994 euh, coup bi fi amoon fii Sana Sabally testify na wax na yu bari against Jammeh wax na ci yu bari yoo xam ne Jammeh def na ko moom Sana Sabally ba pare moom confess na ci yim def moom ci boppam waaye confess na tamit li ñu ànd def moom ak yaaya yëpp te xam nga tamit yow loo xam-xam. li mu ànda def ak yaaya Sana Sabali waaw fan la ànd ak yaaya def lan. lu lim confesse confesse na ci li nga xam ne moom def na ko ak yi nga xam ne def nañ ko ñoom 1994 mooy AFPRC. Hmm. muy Sana muy am nguur bu doxe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 fu muy fanaan ak kuy wut ku ko wéetali xanaa delloo bunt gi war naa boole Dia Fatus Guest House tijjil na leen bunt bi ñu ngi leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaañña amal neen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV banque fa boo dugga lal yu nooy leen leen fa amal amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy faan toilette yu set wëcc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge beneen bu baax dama ne teraanga day mut moo tax it Yavaatous Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gaas ku ko bii nii kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xoof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage yi base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service réchaud bi amul Dia Fatou Guest House teraanga àdduna bët kon nag seet leen ñu oh, oh, oh, naforo muso ngetele fo mbadiŋol be yalong kanuntelu be yalong sinyol be yalong ani njawol fo yalong ngetala kanu ala yalo ngetala kanu baby ngetala kanu ala yalo ngetala kanu babe ngadi yatamiye akuyatamiye ngetala kanu ala yalo ngetala kanu wa hey, hey, this is a man himself Lixin Khan the original frontline army right about now you are watching Gambian Talents TV bi foofu dañ fa xam ñetti nit rey leen ay ndaw rey leen nga tëj sa bët nii lañ leen xangee nii bi yaa ngi gis fu ñu leen dee xam nga yëg gis ñu rey sa moromu nit ñi nga gis lii moom a tax ma nekk activiste ci coalition bi ñaata nit a jël place maay parti bi wax si la bokka Amad Bass bi wax si la bokka Asib Touré bi moo wax si la bokka hmm. ici beneen constitution bu ees hmm. loi mayewu ko fenn ne xutawa maanaam amul benn clause bu provide the repeal of the 97 constitution. programme bi xalaat la ko doxal ko ni war a doxee su manqué tam si yow la soo nguur gi ñoo deful li ñu war a def suñ defoon li war a def docteur yi yi jànga te génna waroon fee nekk nañ fi toog kon euh, euh, jumtuwaay si lopitaan yi na doy waaye may leen leenaa lu si nekk tam sàcc bi moo bëri si bu sax Gambie yëpp dañu liggéey yaay Jammeh tout Gambie fi tije fi gis police boo fi gis armée boo fi gis ñu liggéey si ministre ñëpp tout dañu liggéey si yaay Jammeh ñëpp kon ñi dañ ko cekke woon kii moo woote woon moo euh, state of emergency moom moo hmm. defoon mu jàll state of emergency moo waroon a prolong li nga xam ne mooy state wu Yaya Jammeh ci régime boo xam ne dañ la you euh, are waaw ah xam nga state of emergency mu ngi si mu ngi si mu ngi si constitution oh, Sidi Ndiaye ne ma maa ngi fi jël ma use ma mu nekk campagne manager mu ne Jammeh du fi bàyyi amul nii amul ne la Jammeh du fi bàyyi boo benn itteel am tey li xew si réew mi yëpp bu mu daanoo si élection député def mu ñu ne waa dafa war a wax dafa war a wax ak Gambians after all réewam ni yaa ngee génn si réew amul fu yi ni ngay toog ay week demum school foo ñi yëpp mënu wax Um, do manager of Bantaba restaurant. This is my boutique. It's Anna's Closet. Money does not go on three. No matter how long I live in America, uh, Gambia is my home. That's, that's what I have. Mangi judo fast njagachoy. Mangi grow up in Bakau. Business in United States, not only in US, everywhere in the world right now, business is challenged. Looking into many different kinds of businesses. I think this is the best thing to do and it's really working out for me. I've been here for about 16 years. I came here in 1989. Well, I have like uh, three, four jobs that I do. My advice is for other young Gambians to focus on what they want to do. Education is the key to everything. Have a vision, have a purpose, and don't let anybody tell you you will never succeed. I am Anna Sayang. Ibu Bah. Adjie Ndeye Dafe. Ouleyma Sayous. Ibrahima Deba. Mohamed Sawane. Fatou Deba. Abdoulaye Lo. Jelimadi Jabate. I'm very proud. I am proud. I am a proud Gambian. Embracing this ground, my people, my town. Celebrating this sound, we are feeling some type of. Okay, yeah. ba tey ñu ngi waat ak moom Pa Modou euh, Mbow bokk ci ni ki ni ñu leen ko euh, di tudd waxee mooy APRC Noto Alliance euh, Pa Modou ñu ñu continuer rek balaa ñuy am na yu bari yu ñu jot a waxtaan ñu tëj ci mbir mi le ci li nga xam ne mooy ndax xam nga président bi fi nekkoon muy di former président Yahya Jammeh accusé nañ ko lu bari ci euh, yoo xam ne ci doxalin réew mi ci ñenn ñoo xam ne ay victimes leen ñi ñu ñàkk seen jëkkër yu bare bare bare bare so comme yow ni nga ko waxee nga ne euh, ginnaaw nit ki buñ la tegee ay tuuma fekk damuñ ba gis ne li nga la liñ lay tuumaal yaa ko def euh, yow bu boobaa da nga till now innocent nga ok but white paper bi li ministre bi explain mooy dinañ set up li nga xam ne rek mooy dinañ investigate lépp parce que évidence yi leen jox noonu yëpp ñoom duñ ci sukkandu kese kese kese pour prosecute kenn waaye dinañ def eh, euh, further investigation ba gis ne euh, bu fekkee ne président bi ak ñi mu ak kenn koo xam ne taxa nga ci liñ lay tuumaal yaa ko def lépp luñ la war a euh, lu la war a buñ la war a tegi daan daañu la ko teg. arala si loolu. ànd nga bu baax. ok good kon nag in the meantime. <laughs> munu lan la nit mën a def. mën loo génnee sa yaafi yaram bi tuuma la rek. tuuma moom rek. moo tax ma ma jox la exemple mooy la su nit ñëwoon tey fi mu nekk nii dama Mouhamed Mbaye Garmi ki la interview du ma barke yàlla du ma ko gëm fekk is lu ma lu ma substantial evidence bu ma wane ma xoolal su ma jàpp bi nii sax moo ko doon mm. oh, ma yaay bi moo ko rey moo ko lekka seeñu ko mm. ah sax du ko gëm sax foog nga isil ma evidence ñun loi lañ am fii loi buy doxal réew mi innocent until you are found guilty that is an English law ba pare section 69 of this constitution bu Gambie bi nga xam ne moom la Adama Barrow di use ah hmm. subsection A B and C lam ca waxtam mu wax na ko <laughs> Gambian si ba nga ko gis léegi buñ ci génnee loolu tege ko aside kon loolu rek mu ngi ne ñu ngi set présidence présidence la ñoo set for the morrow pour ëllëg si bi ok euh, xam nga léegi ñu jàll ci euh, beneen point euh, bokk na ci tamit aaj tondi sikoon bi nga xam ne dinañ koy rineem tuddee ko li nga xam ne mooy never again memorial aaj hmm. te wax nañ tamit nañ def foofu benn kom lu mel ni euh, pays tur yi euh, victimes yi nga xam ne euh, ci nguuru Yahya Jammeh gi dañ leen xëy na ñàkk nañ ci jur wala nangam ak nangam seen tur yi dinañ ko daal di def ci kii boobu yow lan nga gisee loolu ànd nga ci. ah génne nañ fi bu fa nekkoon di fifty six thousand dalasi. Hmm. spend nañ fifty six thousand hmm. su la neexee su la def nañ ko di waaye loolu taxul mu génn si mémoire nit ñi. loolu taxul mu génne si xoli nit ñi à 22 ah. hundred dalasi bi nga xam ne moom mooy hundred dalasi sax xale yi aaj lañ ko wax xale. duñ la ne sax même hundred dalasi dañ la ne même aaj. aaj moom mu ngi ci xoli nit ñi ba pare aaj is an edifice pour city. city bu nekk am nga lu la nit ñi day xàmmee tey soo gisee the statue of liberty di nga xam ne wala gaa yi Amérique la. soo gisee réplique bi sax di nga xam ne lii bu Amérique hmm? soo gisee Taj Mahal di nga xam ne lii India la Great wolof of China di nga xam ne lii siin la waaw dëkk bu nekk da nga am lu symbole luñ la di xamee loolu la woon rek du anything aaj bi suñ sole leen ko tuddee euh, Adama Barrow suñ jëlee aaj bi tuddee ko Adama du tax ba léegi nit ñi aaj ñu ooyee aaj bi aaj mu ngi si xooli ba pare suñ paree ci aj bi nañ dem jiyaat rees tam dem national assembly wecci ko wecci la lu tax wecci tur ah luñ fay wecci ah lu tax lu ñëw wecci aj lu ñëw wecci aj non parce que victimes yi lañ bëgg tamit seral seen xol xëy na ah, ah, dañ ko tuddee jaar loolu doyul sax nañ jël jaar nañ jël national assembly Pamour Pamour yow yow mii nañ jël national assembly yow mii soo nekkoon yow oh, ñu jël airport bi tuddee lañ ko Pamour te yow mii yow mii boo ñàkkoon sa wayjur wala nga ñàkk sa sa eh, soxna wala nga ñàkk ci sa nijaay wala koo ci mënti ñàkk nit ñi mm. ni ko victime si kii mm. ñu ne la diw de lañ tuumaal ne moo ko def mm. Pamour am ne noo taxawaaye di nga taxawee bu lul man suma jabar suma doom o suma mag o suma raka o whatever o man mii suma bopp laa la wax nii suma defee naka sudut noonu laa la wax ba sa xeta sarta ba ba luwaa tagul su man billahi wallahi talaay keroog nga xam ne gor am na si réew mi gor nga am ba léegi si àdduna si wax man loolu de maanaam boo nekkoon victime bon loolu la wax ku la ko ne ma nekk ah waaw lan moo tax. ah, ah <laughs> thank you very much. thank mm. suma papa. Mm. ki ma jur Alaaji Ibrahima boobu mu si ndigal maa ngi si fen. Mm. yàlla ne xare aljana. NYSS bi nga gis ni suma papa moo ko initiate it was his idea. moo ko create national youth service scheme. under president our scheme. That was moom hmm president our scheme. Mm-hmm. Then within the president our scheme, there was um, uh, junior achievement. Mm-hmm. Junior achievement was a partnership between the Gambia and America. Hmm. So Tom Gaman, he was the American counterpart. Hmm. Momo Pabi, Smopo Neka, the Gambian hmm. one. Okay. from uh, junior achievement at uh, uh, uh president award scheme, Fufulagai created NYSS. Now, NYSS, when it came, bi gars yi um, di fi problème bi ñëwee moom mooy di then um, youth sports minister moom moo nekkoon moom onda Paul Biya am la waaw man sama papa moo kii moom responsible woon pour uh, uh, NYSS at the time now di di di di student intake yi nga xam ne moom lañ am day wax dañ waroon a ñaw seen uniforme dañ war a am uniforme naaw hmm. uniforme bi nga xam ne moom lañ war a sol léegi suma ma panee balaa ñoo jël contract bi di ko jox somebody else from outside hmm. why not ñi nga xam ne jël nañ la arrêté ñu mun a ñaw ñu ngi ñu pour jàng ñaw ñu dogal leen piis bi jënd piis bi dogal leen ko ñoom ñu ñaw seen own uniforme ministre bi ne déedéet loolu du xew moom already wax naa nit et sénégalais hmm. already wax naa kooku mm. te kooku kooku la ñoo jox contrat bi mm. su ma ko ne déedéet loolu doesn't make sense we are training these people to pour pour ñu jàng ñaw ñii ñu ne pour ñu ne ñaw seen uniforme bu baax nañ staré foofu mm. su uniforme bi baaxul tam ba léegi ñoom ña ko sol so at least they will make a good job let nañ dog uniforme bi rek to the size of li gars yi war a ñaw ñoom ñu ñawal ko seen bopp which is gonna be cost effective because ñoom seen training bi start na deyaran den

of oh, NYSS ah, eh, bi moo door loolu du nguuru Jawara rek loolu pour nga rek xam nga booy wax ci télé mu leer rek man lu leer lay wax very so bu ñu laajee tontu rek bu ñu laajee tontu nga jàll so waaw loolu moo gën ok exactly understand so obviously man loolu <laughs> nekkuma fekkuma fi sax anyway maa ngi woon Angleterre at the time waaye I was so furious about it But incident will happen. Eh? How many this has nothing to do with President Nyame. This has something to do with a, a minister ko xam ne moom already am na deal ak somebody else pour war a jël xaalis boobu noonu pour am ci kotam. And Pabi is trying to cut that Gine Lulu out of the equation and ñu ko si victimize waaye dëkk bi ñëw feeñ after two days kay dañ ñëw baalu ko aha dañ ñëw am pour baalu ko aha xam ne moom ci lim nekkoon mooy dëgg ministre boobu yàggu fa sax ñu daaxal ko as a result of li mu doon def noonu so obviously su fekkoon ne suma papa moo defoon loolu sax te ñu tëj ko si kaso billahi wallahi talaay léegi xam ne moom moo xiita sarta ok very good yoon nag hmm. ah hmm. soo demee tey Amérique o nga dem Angleterre nga dem seen kaso yi ak Gambien seen fees def dëkk boo dem hmm. nga xiita seen sarta ah ñu ñu ñu teg la yoon ok mu munti so léegi Sénégal fii soo demee cent mètres sax cent mètres ah euh, di fekk ay Gambien ok Pamoudou euh, ok léegi euh, new dignity, the Aponanga the appointment of Fabakari Tomong Jara as the Speaker of the National Assembly, acceding the Deputy Speaker. You didn't want the National Assembly? No, no, getting in so dama la laaj nan nga gisee seen appointment bi. yàlla xam ne gisuma si benn problème. Ah, they are citizens they, they have experience as, a matter of fact Fabakary nekk Fabakary nekk na um, eh, naka lañ ko majority leader foofu. Ah, waaw mu ngi mu nekk speaker. non for ten good years mu ngi nekk majority si house boobu la. mu ngi doog kooku am mm. so mm-hmm. ko war a speaker dafa mel ko elevate rek. si beneen rang I have no problem Sidi Ndiaye tam mu ngi fa woon he was a competent member of Assembly. so mm. if di président Barrow su leen yóbboo leen foofu tam ba léegi rek saako mu laal xayran dañoo continuer nañ fa nekk nag pour représenter dëkk bi rek the rek loolu moo important. nañ def seen liggéey. so what uh, ministre bi laaj nañ ko question bi. ministre ban. ministre of justice justice waaw. attorney general uh, Daouda Jallow. Mm-hmm. laaj nañ ko question bi nan lañ prepare pour mën a indi Yaya Jammeh pour uh, ci wàllu li nga xam mooy prosecution bi ndax dañ koy def fii wala fële ne lu ci laaj rek ndax fii la wala fële la dinañ ci dox ba indi ko yow ndax foog nga ne. yow jokku ngeen ak Yaya Jammeh ci wàllu mbir mi TRRC. ñun suñ boppam sax assan ak exécutif sax waxtaanuñu si. waxtu ma la ñu ko waxtaanee lu toll nii TRRC waat barke yonenti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun Assane exécutif sax tooguñ am meeting sax di xalaat lii nekk suñu agenda sax ñun ñu ngi am yeneen ñoo xalaat booy. ok ñu ngi am yeneen ñoo dox ñu nga victory celebration bi ñu a def nii sax. Ah, amoy seen five kii six national assembly ah, ah ok leen ñëw leen am yéen talent am this this month this month waaw ok 24 25 and 26 ñun si loolu lañ nekk di dox di wax wallahi taluñ taluñ government waaye paper olu Dawda Jallow wax olu président Jam Barrow wax wallahi tooguñ as an executive to discuss this ba pare amuñ benn conversation with président Jammeh regarding about TRRC let alone the white people wallahi waaye yéen a jàng hmm. ah yow <laughs> moom eh. hmm. uh, uh, mooy bi ngeen bi ngeen bi ngeen gisee bi ngeen gisee Barrow dem Équatorial Guinée mooy African Liberation Day Liberation Day AU Summit bi fa hmm. amoon foofu noonu mooy day yu African Liberation Day <clears throat> mooy bis biñ joxe sax white people bi ba ñu bëri di wax ne est-ce que nekkul Euh, gift lañ bëgg jox président parce que moo tombé mu nekk di former président Yaya Jammeh Bardé euh, Bardem euh, biñ demee foofu tamit gis nga Gambie léegi taay na li nga xam ne rek mooy am nañ relationship léegi ak Guinée équatoriale mhm. business ak yeneen affaires mhm. est-ce que tiitalu leen tiital ñu naka a ah, parce que est-ce que relationship du waral léegi dat président mu give up Yaya Jammeh to Gambians ne ko léegi baal ñu dem nga face justice gars yi demal ñu investigate demal ñu xool so soo bi it soo pare ngeen pour loolu soo bi it loolu ma ne loolu soo leen batare rek ñu kub barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam soo rek ñu kub ñun amul dara lu ñu yëngal gannaaw yàlla yàlla rek moo ñu yëngal du doomi adama fii lu fi dëgga rek mooy taxaw lu fi du dëgga du taxaw ñu fi te du ñu fi yeneen fi ah Gambie nag am bilatéral relationship or oh, hmm. multilateral relationship ak benn dëkka hmm. loolu dem kanami Gambia la hmm. loolu ku nekkaa ko ñaan yàlla du Guinée rek suñ ko amee ak Saudi Arabia suñ ko amee any other dëkka tam bi léegi salaamun xayran even with Israel sax no problème waaye na nekk loo xam ne mi la parce que sooy dem um, um, bilateral uh, or multilateral um, collaborations fu nga war a jiital sa interest all the time ok euh, five six yi ngeen wi noonu fóon yi Dudu leen jiiñ ne da ni ngeen doon campagne mooy da ngeen wax ne you will bring Jammeh back to Foni and then di ngeen génne uh, di ngeen you will bring Jammeh back to Gambia and then di ngeen génne économique out of uh, Foni nee na noonu ngeen campagne yeen da nax gaay yi hmm. ba moo tax gaay yi believe loolu vote vote leen maanaam moom moom si seetu la taxoon bi wa wax hmm. dafa taxoon ci seetu di wax so looy ton ci loolu ah loolu man maa ngi laa tontu di ma xanaa Dudur moom dafa taxawoon ci seetu di wax di wax a boppam parce que ñoom loolu la ñoom loolu la ñu wax ne loolu leen yóbbu si ñoom loolu leen yóbbu di ñoom loolu leen tax wax adduna si yëpp ne pour indi président Jammeh intérêt si président Jammeh ak intérêt si APRC moo tax gars dem si Barrow ñoom loolu la ñu wax adduna si di ñun day taxawuñ wax fenn dara MP bi nag bu taxaw ku taxaw daal di campagne nag di campagne lay si Yaya Jammeh ak yooyu kooku am na right campagne ñun as an executive tooguñ ne lii la ñoo campagne lii ak lii ak lii la ñoo campagne parce que bañoo dem um, coalition ak àdduna si yëpp toog nañ dégganuñu amul benn clause boo xam ne mu ngi woon foofu si contrat bi nga xam ne moom lay sign ak GDC boo xam ne wax na waxi yaay dem yaay deme mun naa toppatoo boppam yaay deme alone mun naa toppatoo boppam for the five six years yëpp mu ngi toppatoo boppam waaye there's no place like home. ñun ma ne loolu loolu ñun ñëpp understand nañ ko. waaye dama ne moom mun naa toppatoo boppam ñun la la wax ñun nga yow laaj ñun ñu nekk fii. Mm. ñun li ñu ñor mooy li nekk si biir dëkk ak li ñoo war a def. Duudu Jaan nag su amee lu wax. Mm. moom wax seen wax rek parce que nit ki tam mun nga am gàcce ngay waxee gàcce. waaw la nga jël li ko tuumale parce que wax bu bon moom dëkkut fu moo dem fam jógee la dëkka fam jógee la sànce baax. fii musuñ fee taxaw musu leen ñoo dégg ñu taxaw di wax way si fii musu leen ñoo dégg ñu wax loolu ñi ko wax mooy faam faa Bakary loolu la njëkk a wax ba mu demee Marrakech sax ñu ne consultatif tool lañ dem gis na lan la fa kay jëlee sax daal di leen fa rité. ok waaw ok <laughs> waxuñ waaw président si président Jammeh fi lool su bés bu mu jotee ah bés bu yàlla jotee billahi wala ta ngeen xam ne loolu doomu adama mu si dara kooku kenn coup d'état génnewu ko fii. dañ ko lala red carpet lala tegal ko national anthem bi lala mu taxaw dugal si plaine bi ñu ubbi taati plaine bi mu dugal ñetti plaine waaye balaa ma déglu rek déglu ma ah. la waaw déglu ma la waaw dañ ne coup d'état jëlu ko nit ñi ñoo ko fi jëlee waaw nit ñi ko fi élection la rek waaw mooy loolu waaw moom bi muy ñëw nit ñi ñoom nit ñi faluñ ko ah, kay bul yàkkamti ah, waaw maa ngi lay <laughs> ne man li du dëgg kay yow am nga on mm. right boo ne man dama ne mm. kooku bi mu fee génn lala wax mm. taw mu taxaw ñu tëgga national anthem bi mm. mu taxaw joxante ñëpp loxo la la waa ñu ibi taati plane bi la la dugal fa ñetti motoom mm. kooku dawut kooku dafa génna pour joxe nit parce que Adama Barrow commencé woon a di waa biir Sénégal balaa nguur gi Sénégal am nguuri nguuri Gambie di nekk Sénégal a Gambie yëpp mm. parce que loolu moo pare woon am loolu lañ pare woon <laughs> ñun xam nañ yëpp behind the scenes. si naka après. Euh, loolu loolu question la of another day or another wax not the la ci nu moo tax ma ci naka. ma ne la loolu. ah li ko lal. waaw Macky fi mu toog. fi mu toog. ak tey li nga xam ne moom li xew ni yëpp. waaw ko. dama bëgg nga la démba bi from démba boobu time boobu noonu yëpp sax moom moo nekkoon United Nations Security Council di di protest about président Jammeh ne ne dafa bañ sol dafa bañ élection bi sol si. loolu moo am de. Macky Sall déedéet. daf ko nangu. ay si ñoo ñëwaat. five mm-hmm. days later. Mm-hmm. ay booy sëñ bi loolu foog ñu nangu ko nag xanaa yéen tam mooy booy doo leen doo leen nangu dëgg ay ah. si mm-hmm. moo del si waat after five days. mu ne APRC yow li nga am amuloo lii lii nga am. GDC amuloo lii lii nga am. coalition amuloo lii lii nga am. ndax loolu du dëgg. Ah. baal ma xam naa ne doo fi nekk pour laaj ko waaye ndax loolu du dëgg laay koy waxal rek. ah déedéet waaye ndax xam ndax dëggalam du dëgg ndax nekkuloo ma si kaw réew mi. looloo tax nag. Pamod yow waxal rek. man ma ne ma wax maa yow ay wax. oto waaye soo ma laajee tam man tam du tontu. non yow su ma la laajee da nga tontu. loolu non man bi am naa raay boobu di. loolu la fi am naa raay bi soo ma laajee mooy la aw noo comment. amul problème am naa raay boobu kay. amul benn problème am nga am yoo xam. waaye yeneen fi woon. am nga yeneen fi woon Gambie ba ñëpp fi woon. everybody was here. ñaari risol lañ am si benn élection musta ci àdduna Amérique ngi nii ak seen technologie ak seen advance wall ak we accuse nañ fi Donald Trump ne Russian si booy dañ medul seen elections how how waaye def nañ ko fi ba attaque ru bëgg bundu xatal Russia bëgg bundu xatal fi Donald Trump tañaan tañ tañaan ko jox bañ ko jox jaama parce que kooku mu ngi isi jaama diggante Russia ak Amérique mm-hmm. ok nit ñi bëgguñ bëgg rek moom mooy la dem jos go bi di suñ la suñ la xasee bi xéet rek xéet nañ la amuloo dara lu baax looy def rek loo xam ne di leen la si compliment o oh, ñu ànd see yow man du ma nit boobu man su ma dee sax mm. man man dee xéet nit li ma dee xéet rek mooy sa jikko li nga def lu bon te su fekkee lu bon la tam mm. wel ku nekk dee def lu bon I don't have to hate no it's not ku moo dee def lu bon bu ko ñëpp waaye ne leen wax dëgg nag mm. parce que ñaari élection moo am fii si beneen élection elef 2021 bi su ñaari sol amoon ndi kon tey tey tey problème. ok mbokk yi yéen a ngi seetaan euh, Gambian Weekend Plus tey ñu dalal euh, Pa Modou euh, Mbowe. Hmm, APRC Noto Alliance ni ko ni ko Noto Alliance Noto Alliance ngeen ko ok APRC Babili Mansa ok kon APRC ok thank you ngeen yéen a ngi waajal euh, victoire euh, yi. celebration talu leen white paper euh, bu government bi talu leen recommendation yi ci nekk ngir prosecute ki nga xam ne mooy président di den président of Gambia Yahya Jammeh talu leen ñi mu àndaloon ñëpp ñi nga xam ne dañ leen tudd ne dañ leen war a prosecute yéen li ngeen tal mooy préparer li ngeen di def célébrité seen victoire yi waaye balaa ñu jeexal ñu ñëw ci state of. fi current situation yi euh, réew mi xam naa fi ñu jeexale yéen mooy seen programme bi ngeen waaj boobu la ñuy jeexale ko defee nga wax nan koy euh, euh, defee gi yu ni mel waaye laata rek ñu ñëw ci price hike gis nañ ne dund gi seer na loolu laal mu seer ni mburu yokku na ndax li tax gaay yokku seen fur yokku na jëlee nañ ko tendala si mooy fukki dërëm yóbbu ci fukki dërëm ak ñaar ñu defarkati mburu yi li ñu wax mooy nee nañ fëriñ bi dafa seer li leen bi digoon ñoom gisuñu bi tamit Euh, tontu na ki si jaarale ko ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi nee na it is unacceptable te duñ euh, yokkute gi ñu yokk noonu jaaru ci yoon te dinañ coo dinañ fexe ba loole daal di dakk ak ñu bari nag di wax ne xeexu Ukraine bi ak euh, Russia plé bokk na ci li waral ceeraay gi yow noo ko gisee. man gisee wu ko noonu di. ok noo ko Ukraine li faa xew <laughs> mu nga xew Ukraine di. Mm-hmm. ak even though a loolu xeeba ngeen foofu sax waaye ñoom tam ñu ngi ñu surviving ñun hmm. fii kale lu bëgg lañ jox sol distributeur pour mu distribuer euh, flour bi hmm. farine bi hmm, sénégalais fii biir Gambie they can't moo tax dama la ko wax ma ne la ñun we are a foreigner we are foreigners in our own country amul dara lu dee si dëkk bi fii lu Gambien di rey including sax yi garde Adama Barrow sénégalais so obviously lan la ñu expect lan ngay expect waaw wall crisis la nag what wall crisis uh, uh, Sénégal xanaa Sénégal ak crisis bi de Sénégal ñoom uh, kii Macky Sall hmm. moom moom français yi ñoo ko gardé mburu yokku na Sénégal ma ne waxuma mburu bu yokku man déggoon yokku na Sénégal diwlin yekk na Sénégal Macky Sall waaw français yi ñoo ko gardé ñoo yore sécurité waaw state house li xew li xew Gambie xew loon Sénégal euh, Pa Modou ah, ah, lu ko raw xew Gambie dafa am lu fi xewoon Sénégal Sénégal lu fa xew am na lu fa waay yow Sénégal ñi Sénégalais yi di taxaw di taal seen bopp di taal ree seen bopp la la wax. biir Sénégal bokkul xewoon Gambie. président bu bañoon a dem. président bi dañoo taxaw joxe ñaari result ci benn élection. loolu su Sénégal Sénégal a ngi nii ñu ngi ak ak nii rek Ousmane Sonko rek laa la wax ñeneen fukki nit ak ñeneen deesi ak soo seen rek li ak président Jammeh nii kenn deewu fii ci loolu. Sénégal ah nit ñi nit ñi kenn ñu fi dem am ñu si dee. am na ñu si dee ci bi ñuy daw di génn réew mi. di dem Sénégal ma ne am na ay accident yu ci xew ay ci dee te loolu lii ko cause ah, da nga déglu yow da am loo wax tax ma indi la leer dama ne waaw accusé zone président Jammeh waaw kenn deewu si moo littoo gars flit di génn réew mi di daw di dem Sénégal ñi di dem Casamance man waxuma loolu ok ok ñëw accusé zone président kenn deewu si accusé zone Ousmane Sonko hmm. fukki nit ak ñeneen dañ dee bon ba tey situation yi sax bokkul waaye euh, ma ne euh, bokkul bi euh, nit fii fu ka kenn dewu fi di dafa du benn bul méngale lu méngoo dafa utee waaye bul méngale lu méngoo dafa utee la la wax ma gën a garaaw mm. foofoo gën a garaaw te te ba léegi mm. sénégalais yi ñooy garde Macky Sall fii nii ba léegi sénégalais yi ñooy garde Macky Sall waaye kenn deewu fi parce que ñii gën a di def ma ne waay waay waay ma wax la li waaw may ma wax la li may ma rek ok good da nga wax loolu foofu noonu Sénégal ba tey sécurité bi dañ nekk ci ginnaaw président Sall. ah dañ waa moom pare rek xaaral moom pare xaaral moom pare fii Gambie seen sécurité bi ñëpp bi Yaya Jammeh bañee resource ñëpp ci ginnaawam lañ nekkoon. gannaaw kan. Yaya bi mu bañee resource. ci ginnaaw Yaya Jammeh lañ nekkoon Yaya Jammeh waaw waaw because ñaari resource lañ joxe. waa déglu rek. loolu loolu mu ngi nekkoon président. mu waaw ba January he was the president of Gambia. very good so obviously. they have to be behind moo tax nag ECOWAS ci boppam Gambia si ECOWAS la bokk. situation yu mel nii non non yow li nga li ma bëgg a wax. man li ma laa wax bu jéem a jëlale wax ji. man dama ñëw ma ne la. Sénégal. Hmm. kan ñooy garder Macky Sall. mais Sénégal euh, sécurité ko ñoom la. thank you very much. te Sénégal ak yi Ousmane Sonko rek fukki nit ak ñeneen dee nañ ci. bu incident boo xam ne moo doon five days every day la la waa yi ngay jamante ak di Sénégal ak unstable. benn foreign soldiers ñëwuñ pour pour pour économique ñëwuñ fa waaye balaa ma rek waaye dégg ma rek Mohamed bul yaakaar de tontu waaye ma la wax la du la bàyyi tamit man non dama si génnee Mohamed dama si génnee non man génnewuma la génnewuma la génnewuma la si Pamour ok ok Pamour ñëw Sénégal ba léegi seen gars yi fa nekk fii banta damut la wax nii ñu isi hmm. économie teg because xam nga la hmm. liñ li Sénégal soxla biir Gambie am nañ ñu ngi nii am fi bees jàkkaarloo Casamance xeex boo xam ne ñun suñu yoon ne ko si ñun pour attaque Casamance attaque boobu noonu gis nañ ko fi léegi ñaata nit dafi dee ñaata nit lañ jàpp si ñooñu hmm? gaa yi ni suñu bi fi mu nekk ni amul dara loo xam ne lu ñu kon si mbir Gambie fii la xam ne jël jógeegu Sénégal amut so loolu tax price bi yokku amul dara lu ñu defal julburu bi ñu ma barki di maa ñëw seen néew bi fii julburu hmm. ñu ngi Sénégal léegi tej na two hundred and fifty staff ñëpp redundant ñu jël machine bi mbaa yóbbu ko Sénégal lañ ko defaree julburu suñu biir bi léegi bu Sénégal lañ ko defee ici ko fi jamais loolu tax price yi di yokku mooy priçage bi ma laaj nii léegi mm, mm. léegi tax muy yokku ba pare suñ foruñ bi mburu bi yokku nii Kalilu Wage mm. Sénégalais moom lañ mooy sole distributeur of léegi suñ foruñ bi ñun a fii loolu tax mburu tam yokku because price bi moo ko dicté it's not on our responsibility this is our problem lii mooy suñ problème moo tax price bi di yokku du it's not about Ukraine or Russia or any other country ñun la ñun suñ biir fii ñun ñoo contrôle suñ own géej suñ géej gi ñoo uh, ko ñooy nappa di ñu jaay jën Chinese yi ñoo ñoo jaay jën léegi ba ma demee def investigation man maa def investigation man sama wuba musu demal Facebook hmm. Chinese yi ñoo ñoo jaay jën keesi jën seven thousand dollars ñu jaay la ko yow yow nga ñëw ñaata nga jaay jën yooyu pour war a war a a make profit this is the problem. ok lan ngay xelal government bi ci wàllu. li maa xelal government eh, eh, care of our responsibility. dañu taxawaat ba Adama Barrow dafa taxawaat pour toppatoo sovereignty ak suñu territorial integrity. Hmm. la. Hmm. billahi dina ko waat su ko su ko layoo ta su ko laayoo ta ñun hmm. ah billahi walaay taala na ko laayoo yàlla loolu du ko escape so dëkk bi nag fekk nag xool fii inside hmm. xool interest si Sénégal hmm. ak yeneen dëkk yi boo jox leen priorité wallahi billahi walaay taala dina Adama Barrow dina face nag conséquence dina ko face ok euh, parce que loolu moo tax ñi ñi ñu votal ko loolu tax mu jiite fii nekk fi président président na nga faa nekk pour sa dëkk dëkk nañ ko président yëpp di ko wax I'll make America great again. I'll make Britain great again. Everybody is talking about their own people. But we are not. kenn nekku di ko gis. nekku di xew fii. si xam nga Gambia euh, léegi nii si yaa euh, jamonoy baro ba léegi nii yaa ngeen gisoo freedom of expression ko joxe sa opinion yaa ngi mën a wër ci télé yi ñu lay invite ngay joxe sa. man ko di. ah waaw pot ni nga ko maa amoon breaking di bare soo. but uh, breaking the barriers déggal tur bi rek de breaking the barrier mboolem barrier bu nekkoon fii biir Gambia man discuss naa ko ba wax naa ñu legalize marijuana fii Radio man maa fi def soow boobu noonu fii biir Gambia dama bëgg tam nga déglu ma freedom of loolu yaay jame moo ko isi fii yaay jame moo ñu isil internet yaay jame moo ñu isil télévision am nañ fi nekk si nguuru jawara fii man Pamodou Mbow man dama vote si jawara fifty four years la ma toog ni ma gis ni vote 1992 élection vote naa man Pa Modou Mbow pour won la ne la fii Gambie fii ah amuloo woon télévision booy gisee sa boppa loolu ta ñun ñu miin Sénégal li loolu tax ñun ñu miin ñun suñ comédien si sax fan wuñ because ñu ngi miin comédien yi Sénégal yi suñ musique duñ daan déglu suñ own musician benn benn la woon because radio Gambie fi nekkoon ak radio Sud radio Sud it was um, private radio Mrs Wat naa ko moomoon Réew Gambie nag fii la am nag bantando fii soo soo rombee Brikama rek doo doo mën a jàppati Réew Gambie as a matter of fact Réew Kombo lañ ko daan ooyee soo rombee Brikama fii doo jàppati Réew Gambie ba Réew One FM ñëw George Christensen mooy woon di second FM baan boo xam ne Gambien moo ko moom fii Gambien président Jammeh bi ñëwee bi jël power thirty seven radio stations ñoo nekk fii FM baan amul benn bu segment bi moom apart from GRTS Foroyaa mu ngi fi. waaw lu leen lu ko neex lu ko neex rek ngay wax balal ma Foroyaa da nga ma ne da nga ma ne Foroyaa Halifa Sallah moom lu neexoon Yaya Jammeh rek la. ñaar yoon lañ tëj Foroyaa. ah ñaar yoon lañ ko tëj. waaw wala obvious su fekkee ne dañ ko tëj kon dafa am lu gars yi def loo xam ne ni straight straight technique tey Edward Snowden mu ngi nii dem nga seek political asylum in Russia lan la def dafa wax rek li nga xam ne state secret la la reveal rek fenul de. mu ne américain si ñu ngi jël nomba si nomba ni ñoo jël ñu ngi ko jël dafa dafa joxe dafa wax actually li state bi di def gars yi nga ko ut Russia la mujjee daw wàcce nañ plane bu bu président pour di ko ut Edward Snowden ñoom Bradley maa nii Chelsea maa léegi ñu ngi ko tëj biir Amérique ci lan la dafa ñëw de taxaw wisul bu loo waloon de taxaw wax dëgg kii nag euh, Julian na nag Julian Assange yéen ñi nga xam ne yéen yéen ay journaliste yéen a ngi war a taxaw xeexal ñooñu sax xeexalu leen yéen ah, ah, ah, leen waaye su leen daloon tey ngeen bëgg a ñu ñu ñëw xeexal leen te yéen waroon waroon ngeen a jóg xeexal ñooñu waaye xeexaluñ leen because gars yi ngeen um, press freedom ñoom ñi wax press freedom ñoom ñu ngi koo suppress léegi ñu ngi bëgg a yow pour nga jël apply loolu yow nga ñëw taxaw di la wax lu la ne soo waxutee dëgga soo waxutee loo xam ne dëgga man waxuma loo xam ne tuumal ma nga seet laa la wax. ba ok ok ok Pa Modou nan ko nan nga gisee gof gouvernement président Barrow. ci. cabinet bu bees bi parce que gis nañ bi mu tabee cabinet bi ñu bari wax nañ fi moom gis nañ fi ay technocrates. Mm. waaw ñu ci mel ni di vice président na Alioune Badara Diouf. Mm-hmm. ah gis nañ liggéey bi ak ki nga xam ne mooy Pierre Gomis ah e, ak ñoom seen. nan ko gisee am ñu bari wax nañ ne moom cabinet bi moom tane na wala sax euh, baax na parce que gis nañ fa ay technocrates yoo xam ne ku ci ki ko jiite rek bokk na ci di vice président séntu nañ ne dinañ deliver bu baax te loolu la vice président bi wax sax we cannot afford to to to to to euh, wala to like ñu fail waaw we cannot afford to fail ah loolu léegi moom loolu mooy dëgg waaw mënuñu afford to fail because nit ñi dañ leen yaakaar waaw moo tax ñu jël leen mm. tey because Barara Diouf bi nga ne man suma teacher la woon at Nusrat I love him so noo gisee eh, mbir mi. non mbir gis nga liggéey liggéey la. liggéey bi liggéey réew la. su mm. fekkee ne mënuloo ko da nga war dem toog suñ la joxee employment bi sax wane na leen lii mënuma ko. Mm. dañu war a deliver because réew mi dafa tollu foo xam ne nii fi mu nekk dañ need everybody eh, all hands on deck ñëpp roll seen sleeves si laa la wax. Mm. ñu pare pour def suñu hands si déeti. pour make sure ne dëkk bi dem na kanam. du gi yomb na hmm. économie bi mu ngi flow hmm. loolu rek lañ soxla nothing else ku fi prouve sa booba tam baro waxoon fi lii tam de hmm. bi moo ñëw 2017 da nga moom munut waaye am na ay technocrates ah man laa wax verbatim ah waaye ñu ngi fi woon man nekkuma woon feneen fii laa nekkoon si I was here I was the managing director of Daily Observer at the time mu ne moom munut waaye am na ay technocrates ñu boole nag eight presidential hopefuls eight ñoo xam ne di most Uh, uh, uh, recognize politicians in this country ñu bokkat team mënu si dëkk dara yóbbuwuñ ko fenn jël suñ dëkk bi yëpp partagé ko yëpp joxe ko di bes la la wax Halifa Sallah uh, Ousainou si lu tax bokku si lu tax bokku si hmm? Halifa mooy mooy woon spokesman yi coalition bi waaw waaye bi ñëwee ba def seen government ma ne he is part of it he hmm. is part of it dafa jëlul ministériel position rek simply because mom never feel like hey mom this is what he want to do he wants to go to the national assembly he's bet best to be there and he was best to be there, being there as well he's a constitution guy so fofu la warona nek dañ ko def national speaker of the national assembly or deputy or whatever that's what he is good at so really being having the technocrats doesn't mean nothing it doesn't mean nothing honestly li, li important moy nañ def liggéey bi nañ ñu rescue dëkk bi mu ngi and nose dive boppa la jiital hmm. dëkk bi Gambia right now lana fee do dara lu fee dara euh, nothing absolutely nothing Gambia de mu play na maajam bu njëkk euh, ak South Sudan mhm. euh, moo ko win mhm. African Combination qualifiers mhm. win amaan am na ay important three point boo xam ne mooy buñ ko continuer nii mën nañoo delluwaat léegi foo point say am yes léegi four lañ am bële doon la woon yeah eh, ok léegi non bële si kii la bokkoon boo bokku ci woon boobu mooy préliminaire la woon waaw mi ngi dal mu ngi mu ngi start démb waaw am nañ three points alhamdulillah yes so waaye ñu ci bari mooy home game buñ play nga démb suñu home game la waaw ñun ñoo xoos Soudan ba dañ ko play eh, outside dañ ko yóbu suñu néew ba si Sénégal Thiès Lat Dior so ñu bari nag am na ñu ne waaw but c'est uh, disgrace mm. <laughs> nan la Pape Modou gisee yaa ngi ree nag. nan la ah, yow sax moom ah yaa ngi laajte question bi yaa ngi hésité sax. Ah? yow sax moom yaa ngi hésité non non non hésité tu ma. yaa ngi tey yaa ngi tey am fooy seet bu ma war a teg sa tagga ak fa war a teg sa tagga gar bi waxal. <laughs> ok ok Pape Modou nga waxal. non <laughs> non ñëwal rek. noo gisee. ah ni ko gisee rek. non man déedéet ni ko nit ñi gisee rek. ni ko nit ñi gisee rek. lu tax ñu war a dem play Sénégal. parce que dañ ban suñu stadium lu tax ah, euh, di standard requirement of FIFA and CAF. thank you very much mituñu waaye suñ qualifier si hmm. before hmm. ak suñ competition yëpp foofu la daan tege place yes ah because na quoi hmm. yes right now mitu so kon therefore let's do something about it bro lu yàqu dañ ko dee defar luy waja yàqu sax loo xam ne yaa ngi gis ne mu ngi niyaa misalalaaw bor a cosmo ko dee fixe li it comes back to what we are saying li question bi ma laajoon Aliou Aron hmm. everything rek bu ngi Sénégal bro billahi walay talaay garmi su la neexee naxari man maa wax te maa ko Talent TV am saying loud clear everything is Senegalese right now in Gambia Adama Barrow is a governor of the onzième région de Sénégal de Gambie loolu moo neexew no he's not he's a governor of Senegal here in the Gambia. Adama Barrow, Macky mooy président Gambia. <laughs> ok euh, ñu ñu ñu ñu jeexal ci loolu ñëw nag ci gisoon nañ euh, démba fële ca Accra Ghana. Mm-hmm. li nga xam mooy ECOWAS extraordinary summit bi ñu amaloon foofu di waxtaanee di situation of Mali and Guinée Burkina. Mm-hmm. nan nga gisee suñu African leaders yi euh, parce que li nga xam ne mooy parce que Guinée coup d'état moo fa amoon Mali the same thing Euh, ba tey ñi ngi seen jafe-jafe moom yàgg na fa sax mm. euh, Burkina Faso tamit di same thing mm. so ñoom démb seen summit bi dañ doon discuss about that euh, dafa mel tamit léeg-léeg li xew foofu suñu leaders yi bokk nañ ci AU and ECOWAS parce que démb di chairman of AU mi ngi woon foofu mm. Macky Sall mi ngi woon foofu e-, yes di di chairman of ECOWAS tamit mi ngi woon foofu ñoom ñëpp daje woon nañ fa ba dafa mel ni ñoom i neen dañ dañ am eh, like dañ am eh, ay complexe lañ lii xew ku ci nekk da ngay xool bu la rek ngeen ñoom ñu jàppalante euh, parce que dafa mel dañ seetaan lii xew Guinée lii xew Mali euh, lii xew coup d'état dëgg la waruñoo génne nguur ci foqati war loolu warut waaye tamit est-ce que du affaire u tat tams nangam nangam yooyu moo dee dem ba overstay comme li fi sa waaj defoon rek overstay ba euh, léeg-léeg faaw ñu forcé la nga génn fi non man yi yëpp sax. ok lan la affaire yëpp xam nga lan la. Mm. interest si France. Mm. interest si France. Mm. in Africa fii. loolu la France di toppa nii. looloo waral tey fi mu nekk nii am problème. parce que tey fu mel ni Guinée. ñoom loolu la ngay def di dem ñoom bëgg ñoo that that domination. comme li xew Sénégal. seen half indépendant bi ñu la daa jox. parce que dañ laa jox indépendant. ba pare ñu ne la signal pack bi. pack bi mooy lan retention pack la pour bi laa téye. léegi dañ la wane la interest France nga toko toko number one hmm. at all times number two military uh, uh, training ak uh, equipments France nga ko jëndee hmm. number three sa 85 percent of sa GDP bi you to pay to French central bank par annum every year e, hmm. loolu 14 countries yi nga xam ne ñoom ñoo ñoo nekkoon under France colonie yëpp ñu ngi ko def ñu ngi ko fay ci French central bank bi every year at bu nekka 85 percent of li nga make sa fa xaalis a is going to the French central bank te yow anytime boo soxlee ci xaalis boobu noonu whatever however much loo si soxla ten percent lañ la mën a jox um, dañ la mën a twenty percent lañ la mën a jox of dem xaalis hmm. ba pare da ngaa interest dañ la ko jox ase loolu sa oon xaalis yow hmm. so moo tax suñu éco beeg yooyu noonu éco lifin pour hmm, loolu France si teg tàngaam because mu nekk um, uh, uh, French CFA bi moo ko moo ko a back otherwise du happen because obviously fourteen countries yooyu ñoom ñu ngi dugal xaalis moom mënut a afford the problem léegi ñi ñi ñoom Mali yooyu ñu ngi koy fàttamte ko ñoom dañoo wan di French pour coloniser la moom comme li xew Rwanda hmm. Rwanda tam di same thing ñoom léegi léegi French nekkaatu seen national euh, official language official language hmm. Swahili la gaay thank you very much hmm. now this is the situation this people are saying French to the French listen leave us alone we want be Africans. We want rule ourselves. We want be independent. And the French are saying no. just like li xew in Guinea Guinea Bissau Guinea Bissau is not uh, Portuguese yi ñoo leen colonise waaye CFA la gaay di use hmm. how comes <laughs> it's just the manipulation of Sénégal so lan la suñu leaders si war a def ngir Afrique moom boppam maxuma moom boppam rek ci ci uh, di mën a ku ñu bëgg waaye moom suñu bopp ci di def ak demee suñu xalaat di demee suñu ay ideas lu ñu neex ñu def ko waaye loolu bu ngeen xamul nag leaders yi nga xam ne ñoom ñu ngi noonu ñu ngi a ooyee dictateur ñu ngi leen a ooyee lii lu leen ooyee la naan overstay nii nanga ma nanga a nekk fii déedéet waaye balal ma ok waaw question nga ma a def nga ma la ok waaw nan lañ war a def sëñ ma déglu waxal waaye bu da tamit lu ma la laaj ah, bul tontu di bëgg a indi tontu nga ma laaj ma la solution bi may la ñun dañ war a dañ mm. war a respect téye bu mm. baax a baax a baax a baax a baax mm. suñ leaders yi nga xam ne they are defying to them comme ku mel tey euh, euh, a Kagame Paul Kagame ñaata ñaata at la nekk président yàgg na fa léegi bi gars yi taxa taxaw sax naan ko eh, dictateur dafa a dafa yaaga sax ni nga ma nangam référendum la dem dafa oo ni ñam mu dem référendum ninety nine point nine percent ñoo ko votal yes pour mu stay now okay because of why xa gis nañ ne kooku mu ngi liggéey kooku mu ngi stand up to the mu ngi stand up to whatever aggression or whatever pour euh, développement ni Rwanda mm-hmm. now ma jox la beneen exemple as well Vladimir mm-hmm. Poutine Poutine mm-hmm. Kremlin bi ah comme laaj National Assembly bi dañ toog ne dañ vote ñu ne ba until 2036 he moom mooy nekk président du dem élection sax Poutine ba 2036. Mhm. mooy nekk président do you know why because gis nañ ne moom he can stand up to America he can defend Russia and he is making Russia progress in simultaneously mhm. concurrently. Mhm. mu ngi a defend ba pare mu ngi a yóbbu si kanam. ah. so obviously gars yi fa ñu bàyyi ko fa. he is there he is gonna be there ba 2036 su fekkee si laa dem fekkee élection na am sax si laa dem élection su fekkee dégg on nga. now Rwanda ngi def the same lu tax mënuñoo roy si lu lu mënuñoo roy lu African téye seen Rwanda ñu ngi seen nañu satellite. Hmm. pour am free internet. free internet bi ñu baroo promise waa biir Kaama. waaw waaw hmm. ko am moom da nga taw ci bus stop nii sax nga am free internet lu amul ci Europe. in Rwanda. they holding on to the leader ki nga xam ne kooku moom pare na bu nga def everything right. Hmm. for them to go forward. parce que yooyu. moom moo tax waa Rwanda yi bëgg nañ ko waa ah. Rwanda yi ñoom bëgg nañ ko trop. absolutely. parce que mi leen di jariñ. absolutely. absolutely. soo keneen tam hmm. soo nekkee sa dëkk di liggéey tam dañ la fa teel bàyyi la fa ku fa liggéey rek génne leen ko foog ñu si kuy liggéey tey soo amee popet président koo xam ne moom yesa yesa rek la outsider bi lu ñu bëgg rek a mujjee uh, boo xam ne ci Gambie ci la bokk réew nekk Afrique bari ci lañ bokk hmm. uh, noo gisee dem bi bi mu demee gis nga waxtaan bi mu wax fekkee gis loo ko wax na ko ni ko li ko wax daal mooy ab mel euh, ci wàllu fertilizer pour ñu bàyyi ñu ko mën a euh, mën a dugalaat Afrique euh, bokk na ci li wàllu di di wheat muy farine beeg yooyu mu mën a liñ ko mu mën di dugaat biit biit biit biit Afrique ña waxtu man dem na ko Afrique bokkuñ ci li nga xam ne mooy xeex bi waaye ay victimes leen ba tey Afrique na ci ñoo xam ne réew yi bañoon nañ ñu sanction Russia despite di pression yiñ leen teg yëpp so dafa mel dafa demoon he was the voice of Africa parce que gis nañ ne tamit ñu wax ko ñu bañ ko wax Afrique da euh, wax dem na sax ba ni ko euh, buñ moytuwul li nga xam ne rek mooy food crisis mën na ñëw mën na ñëw sonal fii nii mën na ñëw dal Afrique parce que euh, yu ci bari dañ koy jéggaane Afrique te ñu ci bari lu ci mel ni gaz lu ci mel ni yu dafay jóge Russie dafay jugee Ukraine yu ci mel ni lu ñuy defaree farine bi yu ci mel ni engrais parce que gis nga rek engrais léegi seer na ñu bari ñu ngi coow ne government bi yokk na ko yokk na ko waaye yu ci bari dafa daan jugee Russie Macky Sall bi mu demee loolu la ñaan léegi nan nga gisee demam bi foofu am nañu ko am nañu ko rafetlu woon nag nee nañ lu tax Afrique war toog ba war a ci yeneen réew hmm. Afrique war a dépend fenn Europe Amérique ñoom yëpp Australie yëpp Afrique leen depend on Africa hmm. lu tax Afrique di war a on dem hmm. foofu loo xam ne ñun mun nañ ko provide fii mun nañ ko produce fii li ñoo dem foofu noonu di fa uti yëpp booy forage bi te ñu ngi ko defar fii mooy forage bi jox kali lu wage ñu ngi ko defar Gambie ah biñ jox Kalilu Wag fori li fii fii la la GMC mu ngi Banjul fii Sénégal lañ ko jox Kalilu Wag moo ko amee loolu souvent ñun liy soxla pour dund rek mu fii mu suuf si di mu ne ko ju bel bel suñu bopp ñun ni duñ pour dem roosee bu eh, tax am ah, naka lañ ko waxati eh, eh, naka ah, Macky Sall demut Amérique pour wax ne leen pour ñu wax kii naka Israël pour ñu stop li ñoo bom Palestine di rey nit ñi lu tax waxu leen pour ñu stop woo bi in Syria suñ mbokk yi gars yi di rey foofu noonu on on justified ah lu tax demuñu foofu ñu dem si pour Poutine hypocrisie la it's hypocrisy I call it hypocrisy hmm. because yaa ngi am foo war a dem foo xam ne moo njëkkee te yàgga ba bugg a dee la la wax te barki demaa njaay ni Russia ak nii ne soo a ko dañoo war a dem si Poutine dem dem leen si Poutine ndax Poutine na leen déglu Poutine faalewul leen li Poutine su faalewul Amérique nan la faale Sénégal ak Gambie ak EU Poutine si boppam daf ñu yërëm parce que mm-hmm. xam na ne ñun que ñun mm-hmm. moom wax na ko si boppam sax mu ne ñun wax na ko grève yaat lañ def suñu on continent mm-hmm. am na fi mu am yóbbu ko si Europe bi soo deyee ñu isi la fi suul non foofu moom damay dëggal sa wax bi <laughs> am na lu wax Macky saal ne ko euh, ñëw ngeen fi maa ngi leen di dalal bu baax waaye di kontaan ngir ñu waxtaanee euh, ndax man rosia mosuma bokk ci ñu nord wara nord Afrique moom mi ñuy wax pour ñu nu ñuy def ba discolonial système parce que xam ba ba léegi euh, Daesh lu ñuy wax euh, nouveau colonialisme euh, maanaam ci wàllu économique Africa is not independent. Mm-hmm. maybe we are independent politically but economically we are not independent. that's the fact. then we are not independent. yes so ci wàllu yooyu noonu tamit am na solo suñu leaders yi muy ñëpp nag ñu bàyyi xel bu baax xam ne Africa tamit dafa war a moom boppam ci lépp. waruñ ne duñ liggéey keneen mën nañu liggéey ñu neex waaye buñ koy liggéey na doon loo xam ne suñu interest ah, suñu interest daf ciy bokk mu nekk fifty fifty euh, ñuy jeexal xam naa ne ñu ngi waaj a jeexal tey moom euh, ki ñu am moo ni mel euh, soo bi waroon naa jeex waaye dañ late ñu ngi ñu ngi ci jégul waaye gan gi ñu am tamit moo ni mel koo xam ne la taskatu xibaar <laughs> ndax li ngay def nii xam na ci lu bari moo tax buñ ko amee rek léeg dafay soo mm, waaye tamit liñ ci bëgg rek mooy waxtaanee ponk yu bari balaa ñuy jeexal bay ñëw ci Euh, ginnaaw nga ne bu ñu ko wax Noto Alliance dañ ko wax APRC e Babil Mansa balaa ñu ñëw ci loolu seen ñetti fan euh, victory celebration dafa naa ñetti fan la. three days waaw three days waaw a amal. Euh, fu ñuy jeexalee mooy mbirum yaa ñëwaat ak parce que bokkoon na ci daan wax ne Jammeh dina ñëwaat. Mm-hmm. far ngeen ndax yéen a ngi bi élection yi jeexee ak léegi ndax yéen a ngi déggante maa élection yi may wax mooy mm-hmm. ndax déggante ngeen ak far ngeen toll ci nekk bu fekkee mën nga ñu si waxtaan jaame moom dégganteeg moom du pa boobu moom du du du mën a sax hmm. parce que moo ñu tànn pour ñu liggéeyal hmm. liggéeyal moom ok as an exécutif ok fan ngeen toll fi ñu toll ci ci lan ak moom ci mbiru ñëwaatam gi ak élection yeeg loolu dëgguloo ma ne duñ ko dee discours ah ok affaire yi ñoom duñ ko dee discours ah léegi loolu du lu du luñ dee waxtaan sax ñun li ñu war a def ci dëkk bi fii mm. ñun loolu lañ dee loolu la ñu wax moom ñun ñoo toog di xaar instruction sax foom jaamee ñun ñooy am suñu own ideas ne lii lañ def ñu dem tegal ko ko mu approuve ko mbaa mu ko approuve su ko approuvé ñu def ko su ko su ko su ko approuvé tey ñu jël ko teg ko ci baax moom rek yéen yéen mbooloo di liggéey ak moom waaw sax ñun ñu ñu ñu ñu toog oo ñu yéen ñëpp ñoo ngi waaw loolu dégg nañ waaw moom moo ñu ah. nag wax dëgg ne yàlla mm. am na am xam ne da ko yëgal tam Mm. parce que am nga xel xam na ne ñun dañ am xel. Mm. xam na ne am nañ duga duga am nañ gina gina. Mm. loolu tax mu tànnañ ah. waaw léegi ñun su ñoo ñëw pour def kay dara su ñu amee ñëwee toog kay ba nangutoo ne benn affaire la ñu bëgg a def kay. ah foog ñu yëgal ko parce que fooguma ne am na loolu ne def fii. loo xam ne di umpa na pa Ousmane. ok ah ok am nga amul. Euh, loolu yëpp def fii daf ko neex. sometimes fi defee lu ko neexu tam mun naa ko léegi léegi even though nekku fi sax waaye suñ tegee idea bu fekkee ñun ñëpp jàpp nañ ne ñun mbooloo mi yëpp jàpp nañ ne this is the good idea baax na waaw moom su ko bañee sax du will go non a bañ ah yéen kay moom lu si daf rek ok so jame tam noonu la mel rek ok na sax daf see yokka because moom daf dee add value moom mun loo ko wax dara te du si yokka du la ne non lii is a good idea waaye ak si ak lii ak lii ak lii billahi wala loolu man loolu la ak li ma musa di la li ñoo wax yëpp dafa add value ci mm. add value ok yéena yéena ngi waaj a def uh, victory celebration three days victory celebration foog naa on the twenty fourth twenty fourth twenty fifth and sixth ok um, fifty six yi nga xam ne yéena jël juróom yëpp yéena ko mm. jël mm-hmm. waaw yéena ko win muy APRC e bi comme nga ne mooy euh, Babili Manso waaye xam nga ñooñu independent candidate dañ leen lañ leen waaw APRC e independent waaw ñi àndoon Fabak rek ñoom ñoo nekkoon APRC e waaw ok euh, balaa ñu ñëw si victory celebration bi euh, lan mooy ëllëgi mbootaay boobu noonu APRC Babili Manso lan mooy ëllëgam ah loolu kay il faut na dafa visible Mohamed. waaw waaye waxuma lan mooy dem bi am five national assembly guñ seen liggéey sax. ñu ngi def seen induction si. ah ñu am juróomi at pour liggéey. Mm-hmm. so obviously day it's here to stay. it's just the APRC. Mm-hmm. it's just the APRC. léegi ñun gis nañ ko ña waxoon ne. Mm-hmm. dañoo dem join Barrow pour mun a isi arab pour mun a isi président Jammeh. ah gis nañ tey ku si gis na fan la dëgg gi xanaa kay nga ngay nga maggu ni yow nga taxaw jàkkaarloo janta bi nii nga ne noonu du janta lii bidiw xam nga loolu kenn mënul si génne maggu em ni yow soo defee loolu tam ba gara garaawul waaye ñëpp xam nañ fan la bi nekk Fa si moom si boppam xam na ne ar président ko pour mu def coalition ñëpp xam nañ loolu dañ demal seen boppa waaw demal nga di boppa nag léegi président Dame moom xam mm. na yéen demal ngeen seen boppa tàgguwu leen ko te moom ebalul leen léegi moom tànn na ñeneen ñu moo liggéeyal because yéen yéen dem so breakaway bi hmm. ñoom ñoo breakaway ñoom ñoo dem ñun demuñ fendi ñun fi ñu président bi ñun fañ toogoon danañ toog toog ak ndigal nag ki nga xam ne ñun ko moo ñu jiite parce que man man man tey su ma doon support Adama Barrow hmm. man président Barrow su ko doon support su ma ko wutaloon hmm. <laughs> billahi wala taala amul lu bara président Barrow di wax te ko def amul nothing laa la wax ne amul anything loo xam ne di fekk rek ne ànd naa yow dem naa ba góom la ba yo naa yow rek billahi walaay talaay sa ideals yëpp will be I will exercise them Lantamboong mu ne Jammeh dafa miss chance bi. waaw kooku waxam la. pour ñëwaat kañ la la ma toog Lantamboong si politique si politique bi. la woon ak yooyu yëpp bi ñu ko fee génnee di ko tëj ak yooyu di ko génnee ak yooyu yëpp sax mu ngi toog bu si politique. bon right now xëy na dafa liggéey moo mu ñëw commencé di wax mo ma wax nii ban chance la Jammeh yaaxa. pour ñëwaat Jammeh mënut a yaaxa chance. Jammeh amul chance pour yaaxa. Jammeh amul dara lu rong lu mu def. Jammeh dañ ko tooñ. ku ko tooñ. Fabakary jël bi yóbbu ko man a ko na ko tooñ. yaa ngi ko tooñ sosal ko sos. ok o obviously nag. <laughs> li li duuf si naaj bi yëpp euh, naaj bi yëpp xajul si cin li euh, seen programme boobu victory celebration bi nan lay demee euh, lan mooy nekk programme itinéraire bi.

te ñoom ñoo ko fom tam amul woon dalasi ba léegi bu jógee si président Jammeh est-ce que jaami am na xaalis bu am xaalis oo am xaalis mm-hmm. dafa mel ni sa poos rek ok léegi aywa continuer <laughs> waaw moom su ma yoon nekku si loolu waxatuma bi fi euh, jeexale waaw bi tiri celebration insha allah is gonna is gonna happen dinañ leen invité yéen ñëpp di mm. euh, yi fi mu nekk nii seventeen ok yuñ takkaat foofu yuñ takk foofu waaw APRC la la jox beneen nag jox leen yaa ko wax ah yaa ngi lay seetaan na baax na dañ la jox beneen nag parce que fii office bi am na ñu yow yaa amee grill bi sax office bi am na ñu fi sant Cissé am na ñu fi sant Samb te xamuñu Samb kooku suma jarbaat ñu bëgg ñu sant maa ngi ko nuyu Fatou dem rek ñu celebrate ak ñu noo léegi loolu waxtaan ndax da ngeen di am press conference wala leneen ah, ah. not necessarily press conference press conference obviously nga soo dajalee nit ñi tam nga gërëm leen santa leen xam nga pare gars hmm. because some of the national assembly members hmm. te dañuy nekkee base invite ngeen Papa Bakary ak ñoom Doudou Dia no ndax de official invitation well seen official invitation si nañ ñëw waaye ah, ñëpp invite so we invited everybody this is about Gambia ay ñun alliance jiris yi nag jiris yéen lu tax seen tactical dafa leen tactical alliance wala ngeen defoon président suñu parce que moom amuñ am ñoom amuñ benn site at li sax ngeen joxoon leen benn foofu sax ngeen yàlla dogal rek ñoom amuñ benn site ñu ngeen liggéey ñoom bi tey est-ce que ànd buñu ànd ak yéen loru leen jiris ànd buñu ànd ak yéen ak ñoom five years ah, lay sign boot feeñu si national assembly élection si de waaye feeñ na si présidentiel président waaw présidentiel bi mën nañu wax ne moom lim am fooñi mosu ko fa am moom because of xëy na li ngeen ko baag moo tax sëñ loolu lañ mën a def waaw lu tax ña joxo leen ko benn site sax ne ko foo ñu fii indil sa indil sa nangam. ne. Hmm. mooy fi am doole. parce que kii moom euh, baal ma de MC Thiam moom li mu wax moom daf ne bi ngeen toogee discours leen anything about that da ngeen wax ku ne na boppam rek. waaw déedéet um, présidentiel. Hmm. loolu la ñu àndal lëkkaloo. waaw mu am benn benn benn candidat to MOU bi laa la wax ni de. boobu dañoo dem ku nekk da nga taxawal. ku nekk Mhm. fit ji tam am doole. APRC su Babli APRC Babli de si wax Babli beneen bi mooy APRC. APRC bo bo ah seen independent candidat yëpp independent candidat leen def defuñu fa APRC. waaw waaw waaw waay ah, tamit xam nga ku respect loi nga yow da wax da nga respect loi. tey bi bi ñoo lëkkaloo ak Mama Kandé tam. Mama Kandé dafa taxaw registre GDC waxut ne moom moo APRC ñoo ok these are technical reasons yoo xam ne loolu nga use rek. ah ok baax na sanga these are just terms you use waaye. fa Bakary ok ah, talin la xaw a euh, Kanifing State. Mm. barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi xam na ne moom moom mu pati euh, ok. waxtaan nañ fi lépp lu ci bari. mënuñoo waxtaan yëpp sax bu fekkee am na loo bëggoon wax. loo ne xëy na bëggoon nga ma laaj la ko laajuma la ko euh, bu fekkee am na tu wax lan la ak nga wax nga wax ci su ko defee ñu ñu jeexal. ah Mohamed ma di dama kontaan rek mm. ci plateforme bi nga leen all the mm. time mm. Gambia Talent TV moom fii moom suñu place la ah, suma suma waaji Ousmane maa ngi laa nuyu Moussa Diouf dama ko dee tooñ ma ne si nga ma dee invite su ko defee ma puus sa sava <laughs> a di leen sant bu baax a baax a ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ak seen internship ngeen di offer di train young people bi lii la Gambia soxla lii la Gambia soxla dañ ñi pour quantifier quantify quality standard bi fi nekka mm-hmm. suñu réussir bàyyi baa bi high mm-hmm. ko war quantify su ko defee mm-hmm. loolu saturate ah di leen ci gërëm nag di leen sant bu baax a baax a baax a góorgóorlu nag di def mooy di very passing ki nga xam ne moo ñu war taxaw di ñu lan ci li ñoo dem trou lan mooy solution bi ak lan la ci war a def noppeem ci dem kanami réew mi waaw dafa a war dem di ko laaj am mm. not talking about you in particular waaye maa ngi wax mm. nga mm. so jënal yéen ngeen war a génne dem di ñu laajteel xam ne ñun loolu lañ bëgg a xam ak yi dem trou li dem trou comme question si ngeen ñoo laaj ñun ñun li ñoo rek suñu opinion la moo nekk man suma opinion mu ngi am baa côté D6 suma kër foofu am kaddu a suma kër la am right pour dogal foofu ne waaw fi bëgga te loolu mooy xew waaw ki nga xam ne nag ne moom overall dëkk bi yëpp mooy taxaw dogal ne waaw lii la fi bëgg loolu muy xew si biir réew mi kooku a war di jànkuwanteel all the time di waxtaan ak moom mu ñoo gënal ko di di ñu teg ci yoon ñu xamal di ñu leeralal nga xam ne uncertainty uncertainty si la li si gën a important tam pour mu taxawal réew mi taxawal waa réew mi bi ko maa ngi sonna du NPP du APRC du GDP du amul NEP boo xam ne mu ngi taxaw si Gambie fii fi nekk nii right now di di di wane satisfaction naaw uh, loolu liggéey boobu bàyyi nañ leen ko a hmm. uh, di invite ñëpp tam si suñ victory celebration bi hmm. incha allahu taala Fabakary Law Jiidu Jaa anybody hmm. anybody even président uh, Barrow ñu a invite nga ñëw kani laay ñu ginande ko Adama Barrow nag wax na fi nag fii after eh, um, National Assembly election bi victory speech am mu ne priority right now mooy réconciliation now hmm. reconciliation nag hmm. mënuloo koo def in the absence of jàmma hmm. peace waaw te peace ah. ba pare ñu balance ko with accountability jàmma nag dëgga dëgga dëgga amul ko gën àdduna amul lu ko gën àlaxira looloy dëgg looloy dëgg su fekkee ne reconciliation boobu moo wax noonu loolu si moom te loolu dëggu la si moom ne leen ko practicalize ne leen put things into perspective xam ne loolu moo ñu mën a yóbbu kanam any form of division. Hmm. dafa wees suñ time dina wees suñ time bu bare bare by the time ñu toog di realize loolu fekk damage bu expensive na hmm. ba xam ne xëj na sax dafa impossible to repair hmm. o oh, xëj na mu costly enough to repair because ñu ko ñu ko dunda te ni ñu ko dundee dafa garaaw healthcare bi jigéen yaa ngi wasinti dee loo xam ne ni wàññi woon nañ ko fii booy ba five percent infant mortality maternal mortality mu ngi dem to the high security bi in terms of safety mm. you know rey yi xale yi ñoo rape mm. ñoo rey mm. society everybody is suicidal right <coughs> te loolu yëpp dafa am lu ko waral ñàkka la dafa am lu ko waral ñàkka euh, li nga xam ne loolu la Gambien si yàlloo te te te war koo bénéfité is not available on our table as Gambians so kon war nañoo seetaat suñ bopp bu baax a baax a baax di ñaan nag yàlla yàlla mi xam ne moom dara coowu ko mu ir aar Mm-hmm. la xañu nag fa yaaxa agut te mu aaral ñu dëkk bi ak mm-hmm. soratul fiil mm-hmm. gambe bi mboolem ku fi bugg a isi safaan mboolem ku fi bugg def loolu naka sudu noonu yal na ko yàlla delloo si sa boppa bi ak sa njaboot ak sa waa kër waaw loolu maa ko ñaan yàlla yal nañu yàlla yokk a rek parce que suñ papa yi suñ kilifa yi bàyyiwuñu ay skyscraper de bàyyiwuñu ay télévision de ou ay université de waaye bàyyi nañu dëkk bu si jàmm ak salaam kenn pamti pamte wu Gambia ba ñëwee tam ba amee suñu réew mi di ko doxal ba léegi ñoo amee woon suñu boppa di doxal suñu boppa léegi nag ñu ngi ñëw foo xam ne nii nekk right now lañ ngi waroon a gën a mën a boppa pour war a gën a mën a dem kanam léegi ñu jël suñu boppa ñu sorenda ñun suñu boppa fi mu nekk nii right now ñun ñoo enslave mm. we are slaves in our own country fii mm. Gambians yi they are foreigners because Gambians yi they are not in control of their own country mm. and this is sad it's a nightmare I don't want to live boo xam ne ne yéen amu leen seen boppa parce que suma dëkk yi ma dëkk yëpp fu ma dem yëpp si àdduna yëpp mm-hmm. ñoo amee seen boppa du Angleterre du Amérique du Sweden du Danemark du Norway yëpp dëkk yooyu yëpp ñoo amee seen boppa ñooy carré seen ñoo waaw pare xotti seen tànki pour meeg soo amul dara loo xam ne luy dem rong la rek ko dinañ ko saafara mm. ba mu des nag suma réew man Gambia waaw ci jamono ji mm. amee wuñ suñ boppa moom wuñ suñ boppa mboolem loo xam ne mu ngi dem fii rong ñu ngi ko toog si nekkaan ko xool nag ñu ngi ko gisee ne problème Adama Barrow la ñu leen ko gisee ne problème kii la ñu leen problème Yaya Jammeh waaye ñun suñu boppa ñu ngi toog rek te lem suñ génn gi toog te loolu moom warut loolu mm. warut ne la ñu ne la ñu jóg mm. ne la ñu jóg wala ñu defar suñ réew mi mm. ne la ñu liggéey ñi ci vote ñi votal lañ ah, président Barrow votal lañ président Barrow moo fi nekka président Barrow votul boppam moom kenn naa fi nekka moom benn vote la am moo jabaram kenn ku si nekk vote lañ am ñoom ñëpp benn vote lañ am mm-hmm. Mm-hmm. waaye votal lañ ko right now moo nekka mm-hmm. léeg ñu dem a leen la réew mi laaj na leen ko def suñu liggéeyut dinañ ko rëccu de te dinañ fi tojante boppa te loolu xëjul Gambie fii Gambie benn bopp la mhm. benn réew réew xam ne nii ñëpp ñoo bokk ndey baay mhm. nga nekk chrétien nga nekk jullit ñun ñëpp a bokk ndey a baay soo ne ñu jàppante jërëjëf Garmi maa laa nuyu bu baax a baax di a gërëm mm. te di la wax ne tam suma bunta baa ngi ibbeeku pour any time man fii kër gi suma kër sa kër la jërë ngeen jëf jaajëf euh, amoon nañ mbégte bu baax si xëg moom waxtaan tey jële si Weekend Plus muy Pa Modou Mbow euh, bég lool doon waxtaan ak moom ci ponk yu bari ñeel TRRC report bi waxtaan nañ ci muy white paper bi government white paper bi waxtaanee nañ tamit ëllëgu euh, bi nga xam ne mooy IPRC Babili Mansa waxtaanee nañ tamit li nga xam ne rek mooy situation réew mi euh, ci njëg gu seer geek yu ni mel waxtaanee nañ ci waxtaanee suñu njiitu euh, réew yi muy Afrique ni ñu rek jiite bokk nañ ci ECOWAS EU waxtaanee nañ tamit lu bari mu joxe ci moom it li nga xam ne mooy gis-gisam ak xalaat ndax réew noonu lay doxee ku ci nekk rek am nga ci sa gis-gis ak sa xalaat ngir bu ñu mën a tabax réew mu baax tabax Afrique waaye tabax Gambie bu jëm ci kanam faaw ñuy waxtaan. Eh, yéen ñi nga xam ne yéenay borom xam-xam yi yéen yéen leen dénk place yi wala yéen a nekk technocratie bu ñu leen soxlaa tamit da leen ñëw di ñuy wuyu si ngir mën a yombalal liggéey bi ngir ñi xamul di man di xam di mën a jàngi noonu mooy yombal réew noonu lay doxee eh, bu ñu la woowee rek nga mën a ñëw ñëwal boo ñëwee ñu waxtaanee eh, réew mi noonu rek lay demee di gërëm sama technicien yi bu baax Lamine Cissé ak train bi muy faatu Fatou Kiné Biaye di gërëm ñëpp encourage suñu scorpion si ndam lu rëy li ñu amoon demb rek foofee ci South Sudan euh, foofee ca Sénégal Lat Dior euh, ñoom ak South Sudan euh, di leen ñaanal rek niñ ko tàmbalee démb yàlla na ko démb yàlla na continuer noonu mm. bañ delluwaat fi nga xam ne rek mooy si African Cup Nation fële ca mm. Côte d'Ivoire 2023 ñu daal di ko indi Gambie mën naa nekk yàlla na rek yàlla ko yàlla def jaa ngeen jëf bay Baye Garmiro woon dig leen daje beneen dimanche bu ci yàlla àndee ak beneen guest buuri buuri mucc ak mucc le saa borom am na ko yàlla na ko def ci kaso bi foofu dañ fa xam hmm. ñetti nit rey leen ay ndaw rey leen nii nga tëj si live nii lañ leen xamee nii ñu ñun ñu si biir bi yaa ngi gis fu ñu leen dee xam nga yëg lan nga yëg lan gis ñu rey sa moromu nit ñi nga gis lii moom a tax ma nekk activiste ci coalition bi ñaata nit a jël place may parti bi wax si la bokka Amad Bass bi wax si la bokka Asib Touré bi moo wax si la bokka hmm. ici beneen constitution bu ees hmm. loi mayewu ko fenn neexu tawa maanaam amul benn clause bu provide the repeal of the 97 constitution. programme bi xalaat la ko ko ni war a doxee su manqué tam si yow la soo nguur gi ñoo deful li ñu war a def suñ defoon li war a def mm. docteur yi yi jànga te génn waroon fee nekk nañ fi toog mm. kon euh, euh, junt si lopitaan yi na doy waaye may leen leenal lu si nekk tam sàcc bi moo bëri. civil servant Gambie yëpp dañu liggéey yaay jàmm tout Gambie fi tijje boo fi gis police boo fi gis armée boo fi gis ñu liggéey si ministre ñëpp tout dañu liggéey si yaay jàmm ñëpp kon ñi dañ ko jege woon kii moo woote woon moo euh, state of emergency moom moo hmm. defoon mu jàll state of emergency moo waroon a prolong li nga xam ne mooy state wu Yaya Jammeh ci régime boo xam ne dañ la waa euh, Ofsted waaw ah xam nga state of emergency mu ngi si mu ngi si mu ngi si constitution oh, Sidi Ndiaye di ma maa ngi fi jël ma use ma mu nekk campagne manager am mu ne ga Jammeh du fi bàyyi amul nii amul ne la Jammeh du fi bàyyi